bis ba nag di la 19 bii ñu nekk incha allah ñu jëm ci tey nag ku ne xam na Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba ci li ko maamam jaral ak ki nga xam ni mooy président comité d'organisation di Serigne Djili moom Serigne Abdou Aziz baara ak mbooleem comité pilotage bi topp ci ginnaawam yépp ñu ngi leen di nuyu te di leen sargal ci quinzième édition journée fàttaliku journée culturelle Cheikh Mouhamadul Lamine Bara ibnu Khadim Rasoul mbokk yi xam ngeen ni journée bi ren ñu tuddee ko maam ak Serigne Afia. di ci fatlikou mbollem mbokk yu bari ci yoonu mourid ak mbokk yu bari ci l'islam bi ak mbokk yu bari ci rew mi ak mbokk yu bari ci mbokku deret ak mbokk ak mbokku pass pass ak mbokku julit loolu nak yaataluk seigne Bas ak beugam lu bax kon ñing koy ñaanal mom Cheikh mamadou Bachir yàlla yàlla guddal fanam te wërel ko ñaanal serigne ahmadou Mokhtar khalifa Daaru khodous khalifa Cheikh Mouhamadunil mustafa yàlla bayiko fi te guddal fanam bu bax noonu la ñuy ñaanale Serigne Moustapha ibnu Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ni moo toog jotaayu maamam Cheikh Mouhamadul Lamine te bunt këru Cheikh Mouhamadul Lamine yëpp ànd ak moom ñu àndandoo di dundal li nga xam ni moom la fi Serigne Bara bàyyi muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul rek di ñaanal bu baax ki nga xam ni mooy njabootu Serigne Xaadim Awa ba gépp di ko dale ci Serigne Saalihu mii xalifa ba ak mbooleem njaboot gi yëpp di leen ñaanal te di leen ziyaare bu baax a baax a baax am mbégte nag ci plateau bi tey ànd ak suñu mag di boroom xam-xam ñëpp di ko béggee ñu bëgg Serigne Touba ñëpp muy Serigne Alhaaji Gana Messere Mokhtar taalibeeb Serigne Modou Makhtar moom Serigne Cheikh Balla moom Cheikh Ibrahima Fati àndandoog jàngkat Cheikh Mouhamadou Lamine Baara di sëriñ Mun njaay Baara ñu xam ko ci waxi sëriñ Baara xam ko ci mbindum Cheikh Mouhamadou Lamine mu di ko jàng jàngin mu am solo Serigne Gana ñu ngi lay nuyu di bég di àndandoog. di bég nag di àndandoog yow tey nar a waxtaane Serigne Bara ci mbindam waaye ci li ñu seere ci moom ci waxtaane Serigne Bara kan mooy sëriñ Bara bu baax a baax nag tey dugg ci sëñ baara ndax euh, jotaay bi sëñ Bas Dani na sëriñ gànnaam lu yaatu ngir mu mën a dugg ci sëñ Bara nit ñi xam kan mooy sëriñ Bara waaye ñu ngi lay dalal bu baax doo nuyoo ba noppi ba sëñ mun jaay tijji ci xasaay yi di ñu soog a dugg ci waxtaan bi ñu ngi lay dalal di la béggee euh, di di di di la indil nuyoo. suñu jëwriñ alaaji mbàkk yu fay sa soppe ak Serigne Cheikh Balla Samb ak mbooleem personnel bu Touba TV yëpp ahlan wa sahlan wa marhaban bikum aoudubillahi min asheytan irajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba naa lii mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko di ko ñaanal mbooleem kilifa diine yëpp di ko ñaanal mboolem jullit yëpp di nuyu sëriñ Bachiru Mbakke moom sëriñ Xaadim Awa Ba mi nga xam ne euh, ci ndigalam lañu teewe ci jataay bi jaare ci moom nuyoo mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gi di nuyu Serigne Cheikh Anta Samb lay nuyu bu baax yow it di la ziyaara bu baax di am mbégte ci jataay bi ak sëñ Mun Njaay Baaram yi nu bokkal jataay bi waaye di jaare ci yow nuyoo waa kër gi teg ko ci sa loxo mu jàll ci jawriñ Alaaji Mbakk yu fay ak mboolem ki yoon xam ne rek mu ngi ci jataay bi kon noo ngi daal suñu kàddu foofu ci nuyoo bi incha allah. barakallah alxaaji Gana Messere Muxtaar ci bi moom li ñu naan 100 Cheikh Amadou Bachir dafa bëgg lépp ñu delloowaat ko ki nga xam ne moo tax muy sonn ci million ay million bari di ko ci def Cheikh Amadou Lamine waaye daanu fàttali ko rek sëtub Serigne Touba di di ku baax di Serigne Abdou Khadir Lo Serigne Djili Lo di doomi Serigne Cheikh Lo moom soxna Diop mbàkkim sëriñ tubaa ak Serigne Dame Abdourahmane ñi nga war ñu image am ñëpp ñaanal ko ñu ñaan kuy seetaan télé bi te gis ko nga ñaanal ko fukki xuluwa ak benn ñaanal ko suñu borom yokku ñeegalam ci barkeb cheikh ahmadou bamba khadim rasoul serigne dam ko moy serigne jili lo di domi serigne dam di domi serigne cheikh lo mum serigne dam abdourahman ak soxna jom bakke ñu ngi koy bu baax serigne aladji lo ak serigne khalil lo ak mbollem njabotam serigne cheikh lo ak mbollem murtada ak mbollem njabootu serigne dam gep ñu ngi leen koy jall diko ko diko jall mbollem ñam nekkalon amerique louisville kentucky dekk bu mu nek fa nit ku bax nek fa nit ku yiw nek nit ku meuna a jaamu yàlla te bëgg lu bax yàlla yàlla doli ko yërmande yàlla nako mamam téru Serigne Touba yàlla nako ko suñ borom yërëm ci barkeb Cheikhul Khadim mamam ak Serigne Dame Abdourahmane serigne Mun jay nga tijji jotay bi ci bindum Cheikh Mouhamadou Lamine bañu xamni jotay bi tay lépp lañu jox Cheikh Mouhamadou Lamine bara ibnu Khadim Rasoul bismillah بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين منور البنيان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 من حمده ومن يحمده من عباده والصلاة والسلام على خير أنبياء المشفعين في جميع باده أما بعد فيقول الفقير إلى الله راجل عني به أحمد الأمين الملتجئ إليه الطالب منه أن لا يخيف عن الحق ولا يميل متواصلا إلى ربه الكريم أسماء الحسنى لكي يكون من المحسنين لهم سيادة والحسنى جامعا ما باسم سور القرآن العظيم نسمع عن قدر النسيم وبأسماء نبي الجاه العميم الذي شرخ الله بقلق عظيم والله يرزق من يشاء بغير حساب ويعلم من يشاء بدون تعلم وقراءة بكتاب يقول أحمد الأمين بن خديم خير الأنعام أحمد الخود الكريم يقول أحمد الأمين ابن خديم خير الأنعام أحمد الخود الكريم حمدا لربيع الرحمن من جاء بالإسلام والإيمان شو الله على العدنان إمامك من جاد بالإيمان والإحسان من فضله في المرسلين شبتا وبكتابه العزيز قد أتى وعاله أغلى التقى وسقمه وكل من قد جاء مؤمنا به هذا وإن اليوم سوء توسل بسور القرآن وهو منزل سمعت منور البنيان معلم الجهول والعميان سمعت منور البنيان معلم الجهول والعميان إني توسلت إلى الرحمن خالقنا بسور القرآن القرآن بدأت بالفاتحة المعصمة وسورة البقرة المكرمة وآله عمران وبالنساء أجارنا الله من الأسواء ولا نلاقي ما يسوى بدا بجاك من رب الأنام عبدا بجاك خير الخلق والأصاب في نفل أجالك السعاب شل على محمد في الحياة الحال رب البرية وفي المآل إني توزلت بسر المائدة فبلنا الخدا وخير فائدة أشكره شكر له قودي ولا أزال دهر خودي أشكر ربي على ما قادا لنا الخديم شيخنا فانقادا فنعمة الرحمن لا تحد ولا تكن تشاء ولا تحب ناجيت من قد نزل الأنحام يا بلي ما تجي الحامة بحرمة الهادي الشفيع الماغي أفوش بالشلاق والفلاغ شرع عليه ربنا على الدوام وليشهد بالمراد والمرام يا ربنا بسورة الخراف ما رأني بجعل غفين سراف ونجيب القدوس والسلام جميعنا من موجب الملام لمن بارا كل دك بندم سرين بارا مين دك كو دنيا ولو سرين بارا بندلي دعى جابني بندم سرين توالا loolu nag euh, la muy firi mooy alwaladu sirru abihi euh, Cheikh Mouhamadou Lamine mooy Serigne tubaa rek euh, te mat ko sëkk Serigne Gana ñu ngi nuyu président comité communication Serigne maam Cheikh Mbacke AIS al jamiatul islamia li xidmati tasawuf di jàmbaar di nit ku baax di ku bëgg réussite bis bi ak ndamal Cheikh Mouhamadou Bachir ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax a baax sëñ Gana yaakaar naa ne Serigne na mooy doomi Serigne Touba. ji njëkk a dem ginnaaw sëriñ bi kon dafa yàgg waaye mel na ni tamit yàggul ndax dafa bind bàyyi fi jëf bàyyi fi sanc bàyyi fi amul njaboot bàyyi fi te nit ñu bari nag war a xam kan mooy sëriñ Baara ndax jagle yi mu am ci boromam ak yi mu am ci sëñ kenn fekk ko ci sëñ Gana kan mooy Cheikh Mouhamadul Lamine. jërëjëf sëriñ Cheikh nuyu sëriñ Samba Diaw mi ak si euh di nuyu mam Cheikh Mbacke ni ko waxee léegi mom momi di suñu wólëre mom sëñ bassirou mom sëñ khadim Awa Ba di doli ñaan ci sëriñ Jili mi nga xam ne dogal na gaaw bi jall rek ñoo bokkon nek Mbacke ci bisu sëñ mo roqee bu suñu ñaan yalla suñu borom doli ko yërmande di ko siyaare khalil mi nga xam magama ak mbol ndaam Abdourahmane Gépp ak sëñ Mourtala Lo mi nga xam ne lañ fa bokkaloon ak sëñ Jili waaw euh, sëñ Cheikh li nga wax moom mooy euh, ñu ngi ki nga laaj ñu di ko waxtaane ren yu andi taarif ku ñëpp xam la ndax li tax ñëpp xam ko mooy ay jaar-jaaram ay jëfam ay jikom daf ko daf ko mandargal Cheikh Amadou Lamine doy na rek ci ñu ne diw ñu ne doomi Cheikhul Khadim la ak soxna su sel sa di soxna Aminata al mardiya mi nga xamne jigen la joj ku mata delu wat la ci roy ci taxawayam ci wetu ku tedd ki Cheikhul Khadim waye ci wetu boromam ci jëf ba nek ko ràññiku ba jaayante won joxe bakanam waye nek ko xamne nit borom xam-xam la won ndax dañuy wax ne bi mi génn aduna benn buntu rek ko lesse won ci risala euh loolu ku yàlla tanal way jur jigen jigéen wu mel nonu tanal la Cheikhul Khadim mi nga xamne mom moom wépp tagg wu bax way tag nit ku bax rek mo ca gëna yey euh nek way juróom mu feñe nit ci dëkk bañ wax toubal Mahrusa loolu di tawfiq ci mom ndax dëkk la bo xamne ne ya tax sering bi sanc ko ak la ko ci jotale ku fa feñ jamono rek ngeenel la Touba la feñ jamono muy dekk ba nga xamne serigne Cheikh Coro mom serigne Mbacke Morante Sali doon wax ne wala si man ata yawman li maskanihi xayral masakin Touba min dadin kharaja kon dekk la bo xamne yit euh serigne Touba ñaan na ci ñaan yu bare bari ba ñaan boromam it ba mu nekké ci tukki ba mu defal ko Touba. mu nek mujjub de dëkkuwaayam. yombalit ak delu watam fa te saxal ko fa. fofu la Cheikh mohammed Lamine Bara gane jamono. fi juma ji nek tay dañu wax ni fi barabu seigne bi nek fi la fi la feeñee. am tawfiq yi bi mu feeñee sëriñ bi ci bopam tuddal ko bopam tudde ko yonent seigne bi ko joxu tour ba noppi tudde ko yonent bi ali sallatu salaam ci tour ba nga xam moy al amin Muhammadul Amin. nga xam ne it ak feeñam dafa bari ay jagle mm-hmm. ni mu amee jagle ci yàlla tànnal ko Touba tànnal ko béréb bi mu feeñe noonu la ko tànnale sëñ bi wutal ko awtul boppam mm-hmm. noonu la ko defele jagle it ak ak teewam am lu lu lu mu dajeel mm-hmm. muy Cheikh Lamine dana feeñ ca kanam ngërëmul yàlla li mu ëndaale doon ko nga xam ne egg na ci ay mbindam sax di ko wax la koy feeñal di ko firndeel mooy bi mu feeñee rek óor bu njëkk bi jaayante woon te jaayante woon Mbàkke Kajoor ñëwoon Daaru Salaam jóge Daaru Salaam ñëw Touba ñooñu la sëñ bi dajale bañ ñëw mu ne leen gan gii fi teew tey indaale na mbooleem li ngeen doon sàkku yàlla gërëm na leen yonent bi gërëm na leen gërëm na leen kon moom dafa wàcce waale indiwaale ngërëmul yàlla ci ñu doon sàkku ngërëmul yàlla ci ab béréb waaye loolu it tew fee xam la joo xam ne euh, doy na sët ngëneel moo tax sëriñ Moussa Ka doon wax ne ma feeñal fi sëriñ Baara Mbakke moo baax al amin doomi lamin ndaw boroomi xar baax kon al amin doomi amin muy sëriñ bi kon ndaw boroomi xar baax lam ëndaale it mooy keroog ba mu feeñee ci daaru duniyaa la daam ràmmu aw xeetam bi xayri suniyaa kon loolu it mooy tawfiix ji sëñ Mouhamadou Lamine al amin ëndaale mu nekk koo xam ne it bi mu feeñee indaale ngëneel yooyu ak tawfiixam yépp te way juróom teel a génn àdduna xam ngeen ne sëñ bi moo ko daan fanaanoo Cheikh Abdoul Bachir Coro maa ngi koy nuyu te ku gëstu la ci sëñ Mouhamadou Lamine euh, moo ma wax ne Serigne Saliou waxoon na leen ne sëñ Baara sëñ bee ko daan sëlamal boppam waaye li tax mu mu bàyyi ko mooy loxo bi mu koy bombale kanam gi moo koy defal kasu nga xam ne day jàkkaarloo yépp yu nëbbu yéeg yu biir yeeg yépp day day day jàkkaarloo moom. yaa ku teel am Euh, kashfu la moo tax xawaarix mu làmboo sewal na docteur waaye wopp bu tuflee nga def buur borom baati na koy xawm la jël na diiwaan kon moom teeloon naa làmboo ay ngëneel yu mag a mag sëñ bee ko dalal jàng it moom tawfeex jooju mooy sëñ bi moo ko dalal jàng moom nag nekkanti wut ak sëñ bi lu yàgg ndax 90 91 la feeñ sëñ bi 95 la dem ci géej gi kon day mel ni ñeenti at wala juróomi at lay nekk ak sëñ bi sëñ bi dalal na ko jàng kon te sax booba mën naa waxtu dal jàng ci li ñuy baaxoo tamoo mën naa am jotagul ci moom waaye mu mu dalal ko jàng ba ko dalalee jàng nag door a dem ci e, tukkeem boobu di di géej gi e, waaye moom ci waxi boppam fi mu jaar lépp sëñ ndaam ak maam Cerno moom gis nga bañ ne ko dafa def xaside goo xam ne e, yaa amu yaa seyxu yaa amu bu tagg ci maam Cerno xaside googu ca la koy waxee na ko giñ naa ci yàlla bu dul woon ak yow duñ man alquran te duñ lambo ay teggin moko waxal bopam da xasida la gu gu reey gum bind ci maam ron borom daaru mox si bu yegge ci lenn ci ay da danañ ko andale waaye yalla sun borom waajal ko nak bi mu tolle ci jang ab dir xam nga bi señ bi nekkee ci geej gi te maam Thierno joge won Mbakke Bari ñew Touba wara ñew Touba te Touba wul te señ bi joxon ko ndigalul na nga nek nga xamne lettre bam bind maam mo Jaara borom sham ci la sëñ bi doon waxale nako nga xam dafa wax ne nañ mal borom sam te waggar ko te magal ko momit na len di yeeram ci lettre bobé waxé nak nak fal yakul ayal ma ibrahim fi tuba in amkana wa ila fi ay makan insha allah waaw manam tuba dal bu jàpp ne bu tuba japp du rek bu sof yàlla ci la démé won guy ngura guy ngura di ak mbay dé fofu la njabatu sëriñ bi tawate won nga xam ne tawat joju dalon seen kaw ba nga xam ne Cheikh Lamine Bara sax moom it bu ñu demee ci mi ne na ko wax ne bu dul woon ak làmmiñ wi wi téyewu ak euh, tënkuk làmmiñ wi kon danaa gën a fecc ay xam-xam moom dafa teel a jànkoonte jafe-jafe bi mu feeñee ay weer soxna Aminata Lo génn àdduna bi muy am ñeenti at juróom sëñ Tuubaa dem ci tukki bi bi mu tollee ci war a jàng tawat dal ko ku gàtt aw fan la ci zahir waaye dund gu riis la dund ci yaatu ci nga xamal ne nekkal yàlla lan lay jëriñ ak xam lan lañuy def moom ni mel waaye moom boo góor góorgóorloo ba mën koo jàngal kon ngir moo mën a xam li nga koy jàngal kon dana jafe waaye moom moo firi nit ñi ne dimbalee le mu Cheikh Lamine ci biir ay mbindam ba ca jëkk mooy euh, gis na mas na gis benn téere boo xam ne dañ caa bindoon karaamatul awliya bokkut ak bu imaam euh, Yuusuf ibn Ismaayil an euh, ku ca doon wax ne am na ci gaa yi yàlla ñoo xam ne suñu borom dafa leen di jàngal loolu day maye moo moo doon wax ne inkaar baaxul ndax lawxul mahfuus ak ya ko wër te am na ci ñoo xam ne seen i xam-xam am na lu mu jéggi tuddoon ñoo xam ne la ñuy xam sëñ baara nag bu ne subhaana man allamana alqur'ana loolu mbir la an ba anil baaqi bi surati naba wa sadril yowma bi nuuri mala mbir la hadaytani yaa haadiyan allamtani saqaytani ka sa safa rabbaytani allamtani min ladunka ilma yaqini ada wa shakka loolu moom moo wax loolu boppam moo wax ne yàlla sama borom ci moo ma gindi yow miy gindeekoon bi yaa ma jàngalit àllamte ni yaa ma xamal yemoo ci gindi ma yemoo ci jàngal ma waaye ni ka sa safaa kaas yu selli yu leeree yaa ma ca mandal rabbayte ni yaa ma yar nga xam ne kon moom tarbiye bi mu am tàggatu googu nee na mi ngi ko jëlee ci ci boromam loolu sëñ Tuubaa wax na rabbaaniya naafil waxaa bu ashkuruhu maa dumtu hayyan bi xawli alhamdulillahi looloo tax mu ne moom kon yar na ma waxit ne euh, yàlla xamal na ma xam-xam boo xam ne nekkul lu nit di sàkku xam-xam la boo xam ne rek soo coobaree yàlla lay doon mu xamal ma ko xam-xam boobee nag fegal na ma lépp loo xam ne ay lor la waaye fegal na ma lépp loo xam ne sikk sàkka la loola yi tax na ba mu géeju ci xam-xam sëriñ bi nekk ci géej gi mu nekk ca loola ba doon ku teel a yéeme ci melokaani biir yépp ndax koo xam ne bokk na ci jagle yi ko suñ borom jagleel mooy yan bi sëñ Tuubaa doon yanu li muy rëy li muy diis bi mu feeñee adduna bokk ci li mu gënoon a bëgg moom mooy jël yanub sëriñ Tuubaa bi yanu ko nga xam sëñ Musaa Ka dana yanub baay ba la noon cas di jéem a aw daam sëriñ bee na ko toogal mu jël ba dem saam nga xam ne kon loolu lépp dalay wan na rek dafa am yu diis yu mu ëndaale moom Cheikh Mouhamadou Lamine hmm. mu nekk nag Cheikh Lamine nit koo xam ne boo tuddee fa mu jaar ba tudd xam-xam nga xam ne mooy njëlbeenu lépp lu nit di wut dañuy wax ne mooy wasiila bi bi nit di jaare pour yegg fa mu jëm mooy torche bi niital nit lay tekkale géeju ci xam-xamam loolu it bu ñu demee ci mbindam dana ci feeñ nga xam ne li mu taalif ci ay téere nga xam ne am na ci yooyu ay toxu ci ay bérébam wala ay lakk tax na yenn téere yi réer waaye defe naa Cheikh Amadou Lamine euh, ci yoon wi sëñ bi rek ko ci ëpp lu mu bind waaye lu loolu moo ci ëpp lu bind ci ci ci lim dund ci li muy gàtt gàtt sañ ci ay dëkk defar aw nit loolu it mu doon koo xam ne bu uslu bi muy bindee saa yoo ca demee loolay waral ay mbindam sax di dugg ci biir mbindi sëñ bi di ci biir mbindi sëñ bi ba nga mën koo boo ci amul ak certainté wala amuloo ci ndi ba mën koo bañ a xam ndax dafa bokk ak sëñ bi ni muy muy bindee bi mu géejoo ci xam-xam te xam-xam ba la ko feeñal mooy li mu wax ne boroomam xamal na ko waaye li mu bind taalifal ko boppam waxal bopam it xam nga li gëna neex moy wax gi mu waxal bopam mbiri bopam ñëwagul ci sëñ bi ñëwagul ci fene bopam la wax dana qad bana lil khalq maa nilnaahu min sharafin man yatina yahyu anwaran wa asrara qad bana lil khalq lo wax leer na bindee fi yëpp man lima am ci tedd nga man Mouhamadou labib ndax ku ñëw fi man kat ñaari andar dana la ko doon leer yàlla ak mbotam waaye yemu ci ne wa mu kaana dem min tala misina kafa rabbul anama aara wa naar ku doon sama taalibe it yàlla dana la fegal sawara dana la fegal gàcc te loolu bokkagul ak li ko gën a confirmer dana ñëw mooy li sëñ Tuubaa wax te bind ko jëmee ko ci moom saxalal ko loolu te loolu mu waxi boppam la mu door a ñëw nag xam-xam bu rafet boobu wammat ko ci tedd ngay jikko mm-hmm. Cheikhul Lamin kon sëñ bi bi mu jógee ci géej gi xam ngeen ne ba ñëw dem gànnaar sëñ Baara tàmbali nag ak tërbiyaat nga xam ne moom mën nga ne da nga naan gànnaar mën nga ne da nga naan yooyu yëpp ay béréb la yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moom Cheikh Mouhamadoul Fadal def a Mouhamadoul Moustapha def ko nga xam ne fi ne tey boo doon tudd boo nee Serigne Fadilu rek tudd Cheikh Mouhamadoul Moustapha ci ci doxiinu tërbiyeeg sëñ bi ci seen diggante bi mu jógee ci géej gi man nga ne sëñ baaral day làqu ci ginnaaw Cheikh Abdoul Moustapha waaye boo nee sëñ Baara tudd nga Cheikh Abdoul Moustapha ndax fu ñu ca nekk ñoo ca bokk doon fa nekk lu ñu ca def ñoo ca bokkoon doon fa def ba ba bokkandoo ngooraloo ngërëmi yàlla yooyu ñu ñu ñu ñu jëlee ci seen way juru sell woowu di Xaadimu Rasuul waaye mu nekk koo xam ne it mooy Cheikh Lamine jagle yu rëy yooyu ko suñu borom jagleel ci jikko yu rafet bi mu jàngee ba jaar fi mu jaar ñu tërbiyee ko ba mel ni mu war a mel ba am jikko yu sell yu tedd yoo xam ne làmboo na ko la koy firndeel ci jikkoom yu sell moy bari na ko xamne jàpp na ne seigne bara nit ku tar la wala nit ku wench la wala nit ku dëgër la fekk na ko sorante lak lool lool ni ngui koy xamé rek moy man nga andi wenn beuy te bu ñu ba ci bir mbind na gëna leer lo xamne Cheikh abdul Fadal ibnu khadim Rasul moko ko bind jëmee ko ci mom la la yu jaarika min maydan min ahadin bil xelmi wal ilmi aw fi judi wa nasab lef wi jëm ci yoonu yàlla yi xal yi kenn dawandoo wu ci ak yow bu doonu kurso kenn langul ak yow ci yett yent yi fil xelmi ak lewet kenn jotu la ci lewet kon ci ci sëñ Fallou ngay déggee ne Cheikh moom la ñu baara ko lewet la waaye wala alma na ak xam-xam wala juudi wa nasab kenn jotu la ci ak tab waaye kenn jotu la ci jikko daal na nag li nga koy xamee mooy buntu bunta mësta dañ ci mbooloo di fa daje ñaara fa nekk koo xam ne sa rahabin aw sa rahabin ku jàq tiit boo ñëwee Cheikh Mamadou Lamine sa jàqale sa tiitaange waaye ku am yitte boo ñëwee Cheikh Mamadou Lamine faj sa yitte ku tabe la woon kon jàngale na eh, jikko jooju nekk ci moom ak melokaan yaatu woowu nekk ci mu nekkoon am muñkat ndax am muñ mën a muñ a tax boo seetloo ci biir ay xasaay itam yëpp waxtu wu nekk day sax day sant yàlla te te te nattu bu diis la daraan tege ci kawam wax naa la ko léegi feeñ jamono ay weer sa way juru jigéen génn àdduna juróomi at ñeenti at sa way juru góor dem ci ab tukki loxoy noonu ngay xalam loola waaye ñëmu ca mu boole dëgër am courage di ñaanal sëriñ bi yow yow yalla sama borom na nga may sama way jur di khadim rasul la xemem diko di bëgg te def ko mu kawé goor yalla yépp nga xam ne yëmul ci bëgg lool bay ñaan ne ko yalla ni nga muccélé sama way jur na nga ko nga bolé ko tawat waye mu bolé ko nek muñ nag nek ab cianta kon bo ne waxtu nek ma ngay ma ngay muñ da xam day wax ne duma dañ mukk di sant yalla borom bi subhanahu wa taala nan la koy sante sama khalima sama xol sama jëm sama lip da koy da koy sant kon ab jikko ju rafet bokku na ci moy mën a muñ waaye mën sant ak tab go nga xamne nekkon ci mom waye nekkon ko xamne it ku wam war ma la ndax dañuy am teggin la teggin liko andi won moy nim doon jëflanteel Cheikh Lamine ñett la nit di jëfleen ko mak ko la mag koo maaseel Cheikh Lamine ku ku ko mak jox na la ci xol diggante Cheikh cheikh Mamadou Moustapha xol digganteem mak Cheikh Mamadou Fadal nga xamne Cheikh Mamadou Moustapha na wax ne Cheikh Mamadou Lamine Bara bu doon soli dal mu wutal koy dal amna lu ko waraloon ñu ne ko dana ko sol waye mosu koo gis nga xamne kess gu Cheikh Moustapha nek Cheikh Alioune Bara du fa dugal dal du fa dugal mbaxal ngir ak taalibe ak jikko ju rafet ji nek ci mom waye nim mu meloon ak Cheikh Abdoul Fadal nga xamne egg na ci di tag Cheikh Abdoul Fadal baneko sa baay moy ki dan fek lor yi ak musiba yi yow ya doonu sa baay nga xamne gis nga nam koy delo dara ji nam koy delo jikko ji bu dee ko magit mom xol xoolal ñi mu doon jëflanteel nga xamne mom ak Cheikh Abdoul bashir li tambalé fofu yëpp wàcc mo len mag xolal tay ji ci bataxal yoy dana ñëw diggante Cheikh diggante Cheikh Abdoul bashir diggante moom jabar Serigne Touba ki dem ba tuddee Cheikh Abdoul Ahad te moo ko mag kon loolu lan lan lan lan lay jàngale ci biir njaboot nga xam ne bu la magee moo lay yërëm comme maasee it mu def la ni si boppam loolu feeñ na ci biir ñi ko waroon ci ay bokk ñi mu bokkal sëñ bi ak ñi mu bokkal yoon wi loolu feeñoon na jikkoom ju rafet ne ko doxal mu mënoon a euh, jëflante ak ñëpp moom Cheikh Lamine waaye doonoon koo xam ne it ku dëddu la woon dëddu gi mooy euh, adduna mos ko yitteel te teewul lépp daje fi moom nga xam ne ku yàlla dénkoon kattan la ku amoon wërsëg la ku bari woon mbooloo la Cheikh Mamadou Moustapha ginnaaw bi mu toogee xalifa Serigne Touba te lu njëkk muy doon xalifa Serigne Touba di toog kenn ëpp ëppuloon addiyee jooy jébbal Serigne Touba ni ki Cheikh Mamadou Lamine Bara nga xam ne waxtu wu nekk lu mu mës a am lu mu mës a toll day jébbale day jox da koy jox Serigne Touba moo tax bi fi sëñ Touba bàyyi ko ci Zahir sëñ mu mu taxaw sëñ Moustapha ci ne ko lu yoon wi laaj bu dee alal bu dee xam-xam bu dee mbooloo lu ci nekk joxe naa nga xam ne ku teeloon a am barke la li ñu koy xamee mooy yaakaar naa mooy ki njëkk a denc ci njabootu sëñ bi wala bokk na ci njëkk a denc ci njabootu sëñ bi ndax sët bi sëñ Tuubaa jëkk a gis ci ko sant bàkk ci góor moo moo moo ko ci jëkk a feeñe muy ma ca sànno sëñ Mouhamadou Hafiz nga xam ne loolu dégg naa bi sëñ Abdou Samad sëñ bu ne yonent bi ci boppam moo ne sëñ Tuubaa dencalal Mouhamadou Lamine sa njëkk yor. waaw muy Cheikh Awa Balla Cheikh Awa Balla waaw. di soxna soxna Fat Diop <laughs> loolu. yaa xafaar la ko sëñ bi joxoon yaa xafaar la dëgg la waaw te ñoom gis nga seen diggante. waaw ñoom ah, ñaar waaw ah. ci liñ mel. loolu li muy wane rek mooy. jagle gi yàlla jagleel euh, Cheikh bi mu nekk koo xam ne it ci biir ay waxam ngay xamee dimension bi mu teg suñu borom ci tawxiidam aslam aataytu kulli lil baaqi bilaa nafat mustaslimin li xadimil maxbatil xiidam jël naa sama lépp jox yàlla waaye jébbal sama bopp nag xaadimu rasul bu lay identifier kan mooy sëñ bi di la ko portaleel da naan kii kat taalibe buñ tarbiyee la bu jóge fële waaye du koy wax ci baayam ci màndu gi muy waxee ci sëñ bi xam-xam bi muy waxee sëñ bi waggar gi muy waxee sëñ bi ak taalibe gi dayoo bi muy jox sëriñ bi moo te loolu yaakaar naa bu fekkee ne xool nga xasida gi tudd bu shiraak yaa ardu Touba résumé na sëñ bi ci melokaan nga xam ne boobu su Touba la ci doon ndokkeel bokk na ci ay mbindam mooy bi fi sëñ bi ñëwee muy ñëw nga xam ne suuf si lay ndokkeel di ko wax ne ko maa ngi lay ndokkeel yow suuf Touba tey jii kat am nga gan goo xam ne kawe na ñëpp gan gu mel ni sa gan gii kat kenn mësu koo am te koo am du ko soppi daana kooku nag boo ko bëggee xam mooy liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne ku mel ni moom mësla am te képp ku ko siyaare tàggoo ki bakkaar daana kooku kat boo ko bëggee xam mooy liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam imaam bi nga xam ne am kenn moom kooku bëgg bëggee xam mooy ki nga xam ne luy yaakaaram ju muy yaakaar ci boromam lépp lu mu am lay doon lu kawe lay doon daana boo ko bëggee xam ne mooy koo xam ne ku lewet la woon nga xam ne suuf si lay wax na ko suñ Tuubaa ku lewet la woon waaye ku weñ si la woon ci kan la tare woon mooy ku dul jaamu yàlla loolu bayit woo bokk na ci li ma gën a frappé ci ni mu ëmbee sëñ Tuubaa fillaahi du shiddatin xaasil fuwaadi ala man lam yakun min jamil xalqi muntasila ba noppi ne yuxibu ahlu tuqaa ahlul ulumi maa falaa yujaal si xurub ila saadati fadala fillaahi du shidda nee na sëñ Tuubaa de lewetam nga ku tar la ci yàlla ku fiir la ci yàlla ku wow ab xol la ci yàlla ku nanguwul a jëfee ndigali yàlla yi sëñ Baara nee na mënoo xam lewetuk sëñ Tuubaa gi fi llaahi du shiddatin qaasil fuaadi ala man lam yakun min jamil xalqi muntasila noo mën a toll ak daraja joo am nee na boo jëfewul ndigali yàlla yi mënoo xam lewetuk sëriñ Tuubaa te loolu yaakaar naa boo jàngee xasida lay sa bir ak wasilatu rubuux ak yeneen ak yeneen li muy soññee nasaraan bi ne ci seen biir wane na ko waaye mag ñi ko toppoon it bari xam-xam defe naa ku ci nekk dégg nga soññi ba mu lay soññi ak delloosi waat bi mu lay delloosi waaye mu ne sëñ Baara daan na nag sëñ Tuubaa moom yuhibbu ahlu tuqaa ahlu uluumi maa ñan la sëñ Tuubaa bëggoon way xam-xam yi way ragal yàlla yi nee na sëñ Tuubaa daawul toogandoo lu mooy way ragal yàlla yi way xam-xam nga xam ne ñooñu ñoo nekkoon ñooñu xoolal tey xasida googu mu ko portale ci sëriñ Tuubaa jàngal la ko wax la kan mooy mooy Cheikhul Khadim ci melokaan ko yàlla jagleel ci doxiinu biir waaye melokaan yu ko yàlla jagleel ci doxiinu biti loolu day wane rek cir bi mu am ci sëriñ Tuubaa ni mu Moustapha jaayee ak njuréelam Cheikh Mamadou Fadal jaay ko ku ne yaxanal ko noonu la jaayee moom it ak njuréelam gi dox ci digganteem ak sëriñ Tuubaa jëndee ko ak taalibe bi moom Cheikh Mamadou Lamine Cheikh nekk koo xam ne jikkoom ju rafet jooju moo taxoon mu daan def ab wër looloo tax mu tasaaroo ci biir réew mi waaye lan lan lay lan lay wëree ci biir réew mi mooy ci Cheikh Lamine Bara ngay gis koo xam ne bu demee ci ab dëkk di bind tànk nit ñi lan la ciy jublu mooy ñu mën a fekkee déwén lan la ciy jublu mooy ndox suuf bañ a matt kenn nga xam ne moom ab xettalaawoo kon la woon boo xam ne daf daan yërëm nit ñi mooy lewet googu Cheikh Mouhamadul Fadal wax dafa nekkoon ci ak Cheikh Mouhamadul Amin Bara nekkoon ku jubóog borooma nag la way bi huwa lisi xussa bi manam dañ ko lon kul fa yakul moy lépp lu ma sax sa borom def ko mom Cheikh Lamine lolu lu ko lu ko ko mayoon moy euh jam bo xamné léppam da koo jox boromam defe na amna hadith xadisu bu ci wàcc ni ab jam dana jege jege lu boromam ci ay nawafil ba mujju muy ay noppam mi muy dégg mi yi muy xoole làmmiñam mi wax non la meloon ndax mom jaamu ko ci yàlla bo xamne léppam da ko jëme won ci sun borom lépp da ko jëme won ci liggéey Serigne Touba waye jëme ko ci jariñ bindee fi bokk na ci ki nga xamne it dafa donn sëñ Tuubaa ci lii sëñ Moussa Kanaan bu natt jógaa ba jëm ci njabootam mu dër dërloo ko ngir gëm boromam loolu Cheikh Amadou Bara daana ko ab balaa natt daana jóg jëm si jaam ñi mu dékku ko dékku ko te eh, yërma gis naa ci Lataa'iful Minan fu ñuy wax ne Abdul Ahad Ash-Sha'rani Abdul Wahab Ash-Sha'rani ne bu fekkee ne am na ci gaa yi yàlla ñoo xam ne bu nattu masaa di wàcc buñ ko capté ba natt bi wàcc seen kaw buñ koy sànniwaat bu ca benn ferñeent rëccee ca saase da ngay gis ku faatu ca koñ bañ dëkk Cheikh Amadou baara nag bu masaa dékku natt bi téye ko bu ko sànnee bu ca dara rëccee ay ferñeent lay def mooy picc yi ne ci xar kanam nga xam ne bu ñu ko laajee danaan ab natoo jëm si woon ci jaam ñi ma ñaan sama borom dégg ko sànni ko la cay rëcc mooy ferñeent yooyu daje ci kanamam nga xam ne loolu wone na lii sëñ Moussa ko wax bu nattu jógaa ba jëm ci njabootam mu dara darloo ngir gëm boromam loolu bokkoon na ci li Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mel kon ci nga ciy déggee mooy Cheikh Mouhamadou Lamine ku jeexoon la ci bëgg Serigne Touba waaye ku bari woon yërmande la ku yaatu la woon bokk na ci li cosaanul yoon wi te aw doxinam meloon ko moom Cheikh Lamine mooy tey boo nee 90 ba 36 defe naa ñeent fukki ak juróom du ko romb ci ak dund te tey nee naa la boo doon xool li mbind ci yoon wi euh, man nga ne moo ci ëppale am am am am mbind ci ci yoon wi lim defar ci ay cheikh loolu dañuy wax sëñ ñaan Diop waaye mbooloo mu bari leen am na ci loo xam ne ko lim am na ci loo xam ne yor nañ yor nañ allah bu ñu si yeggee danañ ko waxtaane ay mbooloo yu bari yu dul jeex te li nga xamee doyloo ko sëñ Tuubaa doyloo nit dana dana dana ne ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa jëlaat ko jox ko Cheikh Mouhamadou Lamine Bara loolu defe naa feeñ ni ci digganteem ak sëñ ñaan Jóob ndax loolu li sañ-sañ bi mu am it mooy xoole bi ko sëñ ñaan di sañcal guy mbil mu defee ne ko sanc weer laa ko tegoon nga xam ne ne ko na ma ko sancal sëñ ñaan it gis nga mag ñi niñ mel ay néegam la dem buddi moom nekku di damay di sàkkete ka gas néegi boppam la dem buddi ñëw sampal ko Cheikh Lamine Cheikh Lamine jaar fa defe ne sanc dañuy toll ci bàyyeek radoog defar fekk moom néeg yi noppi mu ne ko liggéey nga liggéeyu malaayika waaye dana la fay fayu malaayika kon loolu mooy jëf jooju nga xam ne noonu lañ noonu lañ meloon ci Cheikh Lamin mu doon koo xam ne daal sëñ euh, sëñ Cheikh ci ubbi ko ubbi boobu daal loolu aslëf la nuf sala ci ci ci jëmm ju sell jooju Cheikh Maodo la barakallah Serigne Gana Messere Mokhtar ngir waajal bis bi nga xam ni moom la ñuy def journée culturelle bu Cheikh Mouhamadou Lamine baara ci bis bi le 19 ñu jëm ci novembre ci tijj bu am solo bi di nga ñëw ci mbindum Serigne baara dëkk yi mu sanc ter góor yàlla yi mu defar tarbiya leen ci deuxième doo jëlaat sa beneen kàddu incha allah ziare bu baax alaaji Samba jaw dina ñëw ci programme bis bi après euh, ziare bu baax euh, Serigne alaaji Fall mi fi nekkal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak njaboot gi taalibe yi fii ci ndakaaru mbooloo mi liggéeyal sëñ Bara yépp ziare alaaji Cheikh Balla Coro Samb mi nga xam ne mooy directeur bu télévision Touba TV nuyu alaaji mbakki yu nag ndax digganteem ak sëñ Bas Xaadim Ba àddina sépp xam nañ ko sëñ Bas di di ko di ko nekk nit ku ko bëgg Alaaji Mbàkke yi di ko ko bëgg mu mel ni euh, sëñ Mun Njaay Baara da ngay diggaat tuuti ci mbindu ak tagg Cheikh Mamadou Lamine ñu ñu ñu wëlbati ko nag sëñ Gànna laaj ko nag mbindum sëriñ Baara waxi Serigne Baara ndax jaloore du rafetee borom ma koy nettali boppam li nga tëjee ci Serigne Baara doy na sëkk yaakaar naa ni message yi ñu ngi bàyyi ko fu nekk di wax ni waxtaan wii ci Serigne Baara euh, doy na sëkk portrait bi ko sëñ Fallu defal. mooy lewetuk sëñ Bara ak yërmande gu mu amoon mi ngi ci sëtam bii nga xam ne nag mooy sëriñ Basiru Mbàkke Xaadim Awa Ba ci mbaax ci maamam jaral ko lu ne ci bëgg lu baax ci yitte ju kawe ju mu am ngir liggéeyal Cheikh Mamadou Lamine du ñu fàtte mukk ki nga xam ne mooy président comité d'organisation bi di sëriñ Jili moom sëriñ Abdou Aziz Bara jàmbaar di koo xam ne ba mu ba mu ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul yàlla yàlla guddal fanam ak sëriñ maam Cheikh Mbàkke mi jiite communication bi ay AIS jamiatul islamiyya li xidmati tasawuf di ko nuyu di ko ziyaare sëñ mun jaay Bara bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وشركاء من التغلا وللبلاد بغيش شيء كل علا وشراك يا أرض توبى يوم يتعالى كل البلاد بغيش شيء كل علا بشراك يا أرض يوم نزي على كل البلاد بغير شيخ كل علا هذا الخديم الذي نجا المريدين منه كيف المريض فحازر سفل وكمرا فمثل ضيف كلام يشرب به عن جميع الخلق كل بلاء وللورى كان مصر وبناء له هو دافع عن جميع الخلق كل بلاء إن كان ذا شيخ أمثال يوم مرتحلا فمن خير الورى قد شار مرتحلا لا يبتقيش الشرق من دنياه قاتبة سوى رداء ربيع والعلم والحملا يعود أهل التقى أغلى الحلوم فرا يجالس القطب إلا الشهادة الفدلاء إلا خش شدة القاش الفؤاد على ما لم يكن من جميع الخلق ممتشلا لم يدرك القلق والصميم مقاسمه إن كان ذا شيخ بالأوشاق مستغلا يوم رجال إلى توبى طيبا عزت بكل علا خير ولين ما كان في احمد اللمين مومي جبوك يا الله برم كن فاكوك خير ولين ما كان في احمد اللمين مومي جبوك يا الله برم كن فاكوك امنا ولاية امنا خرباخ رجلنا يا الله بودي تشنكي لباخ modi di borom xam-xam te moo di yaaram mooy doomi bàmba di sëtu mamaam moo di sunu sëriñ mau sunu yaakaar moo ni fetal jaxanama ba duñ ca jaar moo am gërëm ak ki nga nekk yooy yaan kii mooy borom mau naw wirul bunyaan moo nuy jariñ du ñu joñal ma sore fajal suñ rab ji xol nuy jëfal moo nuy fegal balaa yu nun ba du moom kenn du moom ngir moo woon ci ay meloom wàllu ma sa dajee nga di yéem mos la alal nit mbaatam yi soppi goloom kii moo rafet ay jikko moo rafet melo mooy wu ñu njàqare te mooy dàqulor yi kuy teew fa moom mu daal di xarit moom mës a jëm ci benn saa lu ma ndigal lum na mu bur yàlla daa ko koy defal moo tëdd ak njaboot bu rëy ay jagleen ku leen di jox àddee am te dootul doomam du ñee doomi keneen ngir dërëm ab taalibeem du naw keneen ngir mayaam defar na ay doomam tabarkeeli sëtam góor ak jigéen ba tax ku ney naw la mu am ku dib sa tëm du fërfëri ngir dëram maam baarakat mayu réeréy la am xam-xam baraw na xel te jàngaloon araaf ci lu mbéral ku ko rawoon nee na la mif lu neex borom ku neex borom mbàkke kajoor maam baara mooy wàllu njàmbur a kajoor lu neex borom ku neex borom mbàkke kajoor ak neex borom Mbàkke Kajoor mam baara may wa daara guddutu fante yërmaande rekk a taxoon musiba yooyu mindeefi moo ko gàddu woon lu waay tawat ba dem fa moom mu faaj ko ci benn saako na ma mu jox ko kéemaat gu la woon gu jaaxal jamonoom ci ay waxam ak i jëfam yooyu duñ ko jóob yàlla ko may gëneelu yaayu kenn amul day folli ay noonam di fal ñu koy jëfal hidaaya yi rëy daana ko jox seex cheikhul xadim boolet ay kaamilu mbindal xoom sëriñ Touba di tàggee sëriñ Baara di tàggee waaye benn la rek suufu Touba léegi la ko sëriñ Gana doon nettali mbokk yi ñu ngi fàttali bisu Cheikh Mouhamadou Lamine ren nag amul ay carte invitation ku teel a ñëw rek yiw ku ne xam nañ fañ la war a teg ak fañ la war a placer Euh, mise en place ba di 9h inshallah euh, bis nak di len ci fàttaliku Cheikh Mamadou len Bara mu tudde ko ren nak mam Cheikh dem nañ daru salam ci njabotou Serigne gawan dem serigne Abo kër Serigne Ibrahima Ndar dem ci njabot sering Serigne Bas euh, def na liko war ci ak bok ci rafetal dem nañ ker Serigne Serigne Afia dem ci Serigne Moustapha Lakram mi nga xamni wajuram la xaritam la taxaway bu am solo taxaw ci bis bi ba ter euh, ba bis teraw ba di jambar dem ci Serigne Cheikh Anta mu Serigne Modou Rokhaya ak mbooleem njaboot gi yépp noonu la ci fàttalikoo alaaji Modou Makhtar Mbacké di ci fàttaliku Serigne Moustapha Absa di ci fàttaliku Serigne Moustapha sàmba Serigne Abdoulaye Thiaw Laye ak ñu bari ñoo xam ni xalaaj Samba Diaw dina ci ñëw ñu bari kenn mënu ko lim ndax lan ak yaatal lu xat lu yaatu deesu ko xatal lu xat euh, lu yaatu deesu ko xatal kon nag Serigne Bassirou yaatal na ci lépp ubbi koo xam ni sëñ Baara ñépp a ko bokk euh, Chérif Abdourahmane Fall ak mbooleem umma islam bi yëpp di leen ci fàttaliku ñu baree baree bari sëriñ Pape malik si Baye Omar Dia waajuru Ablaye ja ku ne xam na ni waxoon naa ca 2STV bi barki démb ni leen Ablaye euh, Abdoulaye ak Moustapha Ndiaye la leen sëñ Pape malik tudde woon les jumeaux sëriñ Bas moo leen ñetteel ñooñu euh, saa saa su ne ñoog sëñ Bas ñooy yëkkateendoo ñooy tegandoo ànd ànd boo xam ni yàlla rek ko lal ñu bëgg sëriñ Basiru ba yemaloon kook dara sëñ Bas bëgg leen kon nag leen. ñaanal leen bu baax ci plateau bi ndax ay nit ñu baax lañ euh, sëriñ Gana sëñ Baara dafa bind bàyyi fi jëf bàyyi fi defar ay nit bàyyi fi sanc ay dëkk nag dund gu li muy gàtt gàtt tarbiya ay nit seexal leen ñooña sanc dëkk waaye moom sëñ Baara mu sanc ay dëkk gor ab àll bind xasida yoo xam ne nag yaakaar naa li feeñagul sax ëpp li feeñ bari lool kon nag euh, lan nga ñu dikkal ndax jaloore du rafetee borom a koy nettali boppam ni bàyyam nettalee jalooreem ci ndigalul yàlla ak yonente bi alayhi salaatu salaam sëriñ Baara noonu la nettalee li ko yàlla may ci yu baree baree baree bare te ndigal la ci am kan mooy sëriñ Baara. waaw ñoo ngi nuyu sëñ Abdou. Fall ñoo ngi koy bu baax di nuyu sëriñ Cheikh Balla door ak si léegi di leen ziare bu baax waaw Cheikh Lamine moom li nga wax léegi rek xam nga ab defaraakoon la woon ndax bokk na ci ay defaram mooy di jàngale alxuraan doon ko jàngaleel boppam. te daa ñaanoon yàlla it mu def ko muy kuy jàngale xam-xam nga xam ne wala yëpp kaw ne maalimal ulum wa saliman wa ghaliman antal alim kon loolu day day ñaan boroomam mu def ko muy kuy jàngale xam-xam loolu it nekk ku mucc waaye ku woomlu ndax yàlla mooy ki nga xam ne mooy ki xam lépp te man lépp noonu la nekkee woon waykat boo xam ne ku mënoon a bind la ku way lu bari la ni mu koy nosee it mooy ni ma la wax léegi yenn yi da ko def tawasul ci digganteem ak boromam di ci ñaan yenn yi ci yonente bi alayhi salaatu salaam yenn yi jëm ci ay dénkaane nga xam ne fii jamono toll am nañ dénkaane yoo xam ne warees na koo tasaarewaat ci àdduna bi ñëpp mën koo jariñoo te Cheikh Lamine dafa waxoon ne sax ku ci jot na ko jotali kër ak kër dëkk ak dëkk réew ak réew te importance bi moom dana bokk ci biir ay mbindam mm-hmm. bu fekkoon ne li muy bind dama ne la ndénkaan yi ne danaan doon moom moo mën waxu suusa yenn yi day jagleel murid yi lenn li doon loo xam ne mboolem jullit ñëpp ñëpp ñoo koy bokk ndax ni sëñ di ñaane it noonu lay ñaane bu ñaan ci eh, nanga nga muccal jullit ñëpp noonu ko sëñ di ñaane noonu la Cheikh Ahmadou Lamine Bara di ñaan mu nawirul bunyaan bi mu tàmbalee woon léegi bokk na ci xasida yi nga xam ne moo ko taalif nga xam ne waraloon na aji mokkal ji am na lu mu ko ci waralu ci ak mucc ëllëg sirul masuun bokk na ci ay mbindam eh, zahabul ibris bokk na ci yaa rabbana inal waraata dara moom looy lii xasida gi xasida ñaan la ngir balaa xam nga bi pest bi amee ci àdduna bi ci réew mi sëñ bi ci boppam moo ko joxoon ndigal mu ñaan boromam moom sëñ baara sëñ bi ci bopp sëñ Tuubaa ko joxoon ndigal mu ñaan boromam waaye xool xasida gi bi mu koy wax yaa rabbana waaw loolu da ko da ko da ko ba nga xam ne peste bi sëñ Tuubaa moo jox ndigal Cheikh Mouhamadou Lamine mu ñaan mu ñaan yàlla te loolu feeñ na ci rek ni mu tawa tawasuloo ni mu ko yaara yaa rabbana innal wara tadarra'u لأوليائك معا ليشفوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا رب فكن لنا وجه لنا لطفا وأمنا يا أحد يا من تعالى لم يكن أحد xoolal ni mu ci ni mu ci delloo ci boromam tawxiid ji nekk ci xasida gi ak toroxlu gi ñu def jëm ci borom bi subhanahu wa taala te kon ku sëñ bi doy loo woon la ci loolu melokaan gi bokk na ci it safinatul abraar ak safinatul amaan saadatul abraar saadatul axyaar yaa rabbana antal muin rumtu min ahli badrin yaa faaxilan lima yurid yallaahu yaa daafiu القصيدة يوحنا دكتور تنكي تقول ميكائيل أقول تدو توبة النصو أقول خامن دكتور تنكي إخفي لي ولي والي دايا أقول تبغي تيب الفؤاد أقول خامن دلائل الحائر في غيبة الشيخ في الجزائر تكتب جيجي تمام لي تجينا يي مي موينين تكتب جيجي مم دنيو نفخل وبرا مم لير الكبر الكبير مم تيرم بوم مم نعم مم بيم كودات مم دكتور خال ولا تيدف مم ببرا مم لير الكبير يي في مم دكتور لير الكبير لير الكبير مم دكتور دلائل الحائر في غيبة الشيخ في الجزائر bushraaki yaa ardi Touba googu door a ñëw waxaaba xab li najj ahmad al xadim am na li rabbil xataya badaar alhamdulilahi almuxtil fadl wal karam ak goo xam ne ramadan al muasib wam sasin ak boo xam da koo tënkee ci xa u rabiul awal na sasin ak yowmul ahad safaru bam sasin yooyu yëpp ay xasida la yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak li muy ñàkk li muy ñàkk ñàkk jot noonu la koy bindee waaye xoolam moom ci bindam bu sëñ Tuubaa nee karaamati xattu yat yi lan la Cheikh Mouhamadou Lamine Bara wax karaamati xidmatul muxtaari duna wana insha rabbi wala azalu daaxidan karaamati xidmatul du duna wana sama tedd nga man mooy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam te du ma daj mukk nag ci di ko di ko di ko liggéeyal loolu kon mel na ni euh, jàngale na ca jëmmi doxiinu mbindam ni muy mel ci jëmmi Sëriñ Tuuba ak jëmmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokk na ci euh, mbindam yooyu nga xam ne mbind yu yaatu la di ko jàngale nga xam ne ku xool yi ñaan lay doon yi jëm ci wenn waaye dégg nga li mu wax ne te karaamu gën a réy raditu anhu wa huwa anni raadin waxat xamaa ni mujibal amraadi gërëm naa yàlla waaye yàlla gërëm na ma loolu dara lu ko gën a rëy amul raditu anhu nee naa ko jërëjëf wa huwa anni raadin yàlla it nee na ma gërëm waxat xamaa ni mujibal amraadi moo ma fegal lépp luy waral ay tawat moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nga xam ne jagle googu am na ko ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala moo tax it mu wax le madda ilayya rabbana ma lam yakun لغير الدهر وطاب لي سكون يلا جوخنا ما لول كين امكو كودول من محمد النبي كون بو فكينا نيت كي واخال بوبام مد الى ربنا ما لم يكن ومد نجمي كي من سان بوروم لوم سام لغير الدهر لغير كنن امكو تي من ديرو جامانو وطاب لي سكون تي واخال بوبام دي غنو وور لب دورنا خطبان للخلق ما الله من شرن ومن ياتنا يه انوار اسرق ليرنا بيندي في لي ما ام تي محمد النبي بار كو في من دا لامبو لير يالا لامبو اي بوتام motax ci suñu Musaa Ka wax ne aajo moo ci gëna gaaw lu wax borom mo ne waw day fal di fond ci lu gaaw man da ragal ci xarnu yi lolu yit kon wone na ci bir ay mbindam mbindam yit mo ci waxal bopam li tax mu géeju ci xam-xamam ku ne hadaytani ya hadiyan allamtani ni ka safa rabbatani kon yalla ma gindi mu muy gindi le moma xamal yalla ma yar tuhti bila talabin turli bila sababin tuhti al ajaib fi taqrib ma ba'ala yàlla dana joxe ci lu amu ben sabab di gërëm ci lu ko soob kon neena yàlla borom bi subhanahu wa taala mom moy kima jox man Mouhamadou Lamine Euh, bokk na ci it kon jagle yooyu suñu borom jagleel ci biir ay mbindam ak i jagleem dégg nga Serigne Moussa Ka lu mu wax ba muy wax ma feeñal fi Serigne Baara Mbakke moo baax al amin doomi lamin naw borom mi xar baax xawaarix ya mu lamboo sewal na docteur waaye wopp tuf léegi ba def buur borom baati na koy xam la jël na diiwaan dëggoo mbaak taxawaayam ba doy na kii man loolu mu doon wax ne ku ñëw fi man yàlla jox la ay leer ak i ngëneel wax ne ku bokk ko ku doon sama taalibe ba man kaana muriidan min talaamiizinaa ku bokk samay taalibe bi sawara lettre bi mom moo firndel firndeel lettre bi defe naa soxna fadja moko joxon Cheikh abdou Aziz ñu ñu tissalako mi bindum muy sëñ mi nga xam diplôme la fi ne bu doon ne nit day am diplôme ci nangam diplôme la Cheikh mamou Lamine waye xam nga diplôme bi mooy sëñ bindum assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakat fa'lam bi annaka ya Muhammadul Amin satanalu maqaman yaqfi yaqu fii jami am saalik lu jëkk lor rek ma ngi lay nuyu xamal yow muhammadu lamin ne da nga am maqaama moo xam ne yax ko fii jamii am sadik sa kem yëpp la ciy ñee Mouhamadou Lamine waaw ñëppale ci ciy ñee waaye nag kulla man kana maaka jamia la yarawna illa ma yasuruhum wa yanfaahum fi dunya wal akhirah ma ngi lay garanté leen ne yow muhammadu lamin mbolam ñi ànd ak yow duñ gis ci aduna ak alaxira lu muy lu leen di bégal ak di leen jariñ sëñ tuba tekke na ko waxum yadxuluna jannata bi xayri xisaabin te ñoom danañ faat buñ faato bay tabbe àjjana kenn du leen laaj dara لأنك ولا تسوف في كون هذا من الله بل سك سكن لي يلا باي لا بايكو ورسوله أكيد يننت ومني أجمن والسلام عليكم يلا كو جوخ رسول الله يلا كو جوخ رسول الله رسول الله جوخ مكو ما جوخ لكم محمد النبي خول بي ديبلوم كوكو ام يلا نياك سيمبا ستنا لو مقام يبي جيم انسالك وانا جميل سي معاك مولم ني اندك يو ييب لا سي دي دانا لا ماي مقام مولا نييب نيي لول مو امنا واي مولم ني اندك يو noonu it noonu la mate te moom waxoon na fee boppam ne wa man kaana muriidan min talaamiisi nag ka faa urabban ana maara wa naaru ku doon sama taalibe yàlla fegal la sawara gàcc sëñ Tuubaa jox ko diplôme bii moom kon xam boppam yëpp waaw mu xam-xam gi xam xam na leen xalqi maa ni laa min sharaf <laughs> bindee fi ne ko ak bawal waaja day boo waroon mbaam it ku ko seen xam ne mooy waaja moom Cheikh Mouhamadou Lamine ngir foofu mu toll ci diggante ma borom kon loolu waxi Serigne Touba la waaye dégg nga li mu waxaat waxaatal boppam ne ca xasidaam googu di munawir bunyaan xasidati jalliyatun zakiya indal ilahi wa nabii mardiya Cheikh Lamine li mu ngemee wax ñu bari ngemee ko de waxi Serigne Touba rek la xasidati sama xasida yi jalliyatun zakiya lu mag la lu sel la indil ilahi fa yàlla wa nabi marri te yonent bi gërëm ko nak nga xamne mom samay mbind man lu sel la fa sun borom subhanahu wa taala kon doonul mbind mo xamne rek ko ko ku am jagle la wala mu am kayita meuna bind waye fofu la mbindam toll egg na ci bir ay mbindam yo xamne day wax ne euh ta muy safinatul abrar wa haati qasidatun man xafidaha jamia tunjihi min haralaw lawa ku mokkal xasida gi sawaraw tàngooru sawara moom da nga ciy mucc cey mooy safinatul abraar waaw nga xam ne moom nee na moom ku ko mokkal moom da ngay mucc ëllëg moo tax boo déggee ku naan ko wax naa nga mënta xam mucc déedéet lu waay mënul neen mënuloo ko loo amul neen amuloo ko bokk na ci ak mandutif waaye pays yàlla yi nii xuta wër te demoo fépp te mul koog ma la koo nàmme ko yombul kon léegi gis nga loolu mu wax kon jagle yooyu mu am ci biir ay mbindam gis nga xasidaam gi nga xam ne yàlla yàllahu yaa daa fi nga fat bax durrana bi sérri sérika wa kasir xayrana يا عالم الأسرار والإجهار فبلي خير الليل والنهار ونجني من البلاء واللوم ونجي من الضلال كل قوم ونجني من كل شر وبلاء أو لجملة الأعداء كل بلاء nga xam ne lii bokk na ci boo ko doon jàng rek balaa yeeg mbas yi yëpp moo ci gën a gaaw ci dégagé mbas yeeg balaa boo ko dee jàng benn mbas wala luy walle luy luy dal du am nga xam ne xoolal loolu mu fàggu kon njariñul jullit ñëpp la loolu jëfi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bokk na ci ndax moom ci noonu rek la doon bindee tagg ak sant waaye déedéet yemu ca da ngay dem fekk ci biir ay mbindam ay wasaaya ndénkaan yoo xam ne waxtu wala ko ci dégg xam nga bu Cheikh mohammed layoun Bara di wax ne maa ngi leen di dénk na ngeen moytandiku iñaanante ak bañante waaye nag bu leen ci yem na ngeen bàyyi nag werante ak xuloo xoolal ni mel ci jamono fi ne ni mel. tasaaroo ci jamono. waxtaan ni bu la xasada wal baxda wala tatrukul jidaala wal mira Cheikh Lamine ko bind na ngeen moytu bañante ak iñaanante waaye na ngeen moytu werante. xuloo nga xam ne bijjoo googu ni mu koy tere ak fi adduna bi toll léegi mhm. werante yeeg bañante yeeg xëccoo yi te dañuy wax ne kuy biddante ak kuy werante ñi xamoo ñi wut adduna waaye ñi ñi yàlla raw na ko te xam nga ne ñi wut yàlla ni mu rawee kii biddante ko werante ñi wut adduna it noonu lañ ko rawee ndax bu nit ñi xëyee doo xëy te bu wàccee nga ne ci gaaram place yi ñu bala fa loolu taxul la jëm fenn te noonu ngay ñàkk yàlla moo tax mu ne na ngeen ko moytandiku moo Cheikh Labine ndénkaaneem gii ne dafa wax ne waaleykum salaam wa rahmatullahi wa te yaqanu ba ani laa amurukum ilaa maa yaqikum dayrayni dunyawiyya wa uxrawiyya maa ngi leen di nuyu waaye na ngeen xam ne du leen digal mukk lu dul lu leen di fegal lor yi àdduna ak alaaxira laa amurukum ilaa maa yaqikum dayrayni ad-dunyawiyya wal uxrawiyya wal yawm tey jii amurukum bil ijtihaadi fi taatillah maa ngi leen di dénk ci top yalla borom bi subhanahu wa ta'ala wa ta'ati rasulihi alayhi salam ak top yonent bi sallallahu alayhi wasallam wal ijtihad bil khitma ak farlu ci liggeyal señ bi wala taqbalu an ziyara bu len sagal ci ziyara kon gis nga ñi nan kenn wërta liggeyal kenn señ bara neena yeen bu la ci dugg jaamu len yalla top yonent bi alayhi salam ci lim andi waye na ngeen di liggeyal señ bi na ngeen di ziyara ji kon dégg tan tan te njël be ngeen duma len digal lu lu len di fegal ñaar lori من فقط سمعت الوالد رضي الله عنه يقول أما بعد فقط أدن لك بزيارة سن بارن ما ديغ سن توبا نه ما نغي لي ديغل زيارة جي كون نان باي خيل نه زيارة جي دا بوك تي دا بوك تي يون وي سن بي كو ديغل وامرتكم بي تتبادروا الى فعل المامورات ما نغي لي ديغل تي نين ديكلنت فخ ووتي جيفي ديغل يي إيه. وترك المنهيات تا باي تري ونهيتكم عن التسويف ما نغي لي تري نو جارلو ولا سيم توبه النصوح ما نغي لي دينك نين ساخو توبو سيل lu tax fa innaha jaalibatu futuux mooy waral ak ubbee wa waamalu saalihan na ngeen jëf lu baax inna rabbi bi ma taamaluuna basir li ngeen di jëf yàllaa ngi koy gis wa uallimukum bi anna saata taati baxtatan sëñ baara nee na maa ngi leen di xamal ne bis penc day ñëw te ci mbetteel wa yanbaghi lakum al mubaadarati ila imtisal awamir dafa war ci yéen ngeen bàyyi nuujarlu bi te fëx wuti ndigal yàlla yi wajitna bi nawaahi te tere bàyyi tere yi wa kullu man laaqaytumuuhu min al muslimina wal munsibina ila al khadim fattaghidhuhu habiban wa akrimuhu fasafihu fo len dox ba dajé ko julit fo len dox ba dajé ko askano ci señ bi deng fo len dajé ko julit fo len dajé ko askano ci señ bi lan la ci tek fattaghidhu habiba na ngeen ko jappé ab soppé wa akrimuhu na ngeen ko warmal magako fasafihu na ngeen safante ak mom kon gis nga buñ déggé lolou kon julit ñi waru ñu bodd kanté mm-hmm. waye buñ déggé lolé lu bokk ci sëñ bi lu nekk ak noo ca laalee noo ca askanoo war nga ca war nañ laa jox cër wala mutasabi mutasabbin wala muta mutanasibina ila alxadim mu ne yonente bi salaa salaam moo wax ne man saafa axaawul muslim saafaxu la yowmal jaza ku saafonteeg mbokkum jullitam saafonteeg moom ëllëg yowmal xiyaam wa man aana axaahul muslim aanahu la yowmal qiyaama ku dimbale mbokkum jullitam yàlla dimbale ko ëllëg wa uusikum bi taqwallah tabaraka wa maa ngi leen di yàlla في الشر والعلانية كل نب أكل فين ولازم توبة تنين سخو توب كل يوم بس بني وكل وقت وقت وني ونية الخير أجيين لباخ ولازم أحسن الظن تنين تقوى رفن جرت جن جارفن جرت من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليقل خير أو ليصمت كو يلا جم بس بنش نيو خلو باخ بابو نبي لم يتس ومن لم يمتثل كجف ولي فلا يلومن إلى نفسه ومن يدكول بابم من بلغته هذه الكلمات كجت يوخجي fal yu ballixa na ko jotal mi man jëliyi kii ñëw min daarin ila daarin min xariyatin ila mu min baladin ila baladin kër ak kër porte à néeg ak néeg dëkk ak dëkk pénc ak pénc monde ak monde monde bi yépp pay ak pay Cheikh Lañu Baar nee na ku jot ci li na ko jot ngir njariñ li xool lim ci tënk ci bëgg yàlla jëm ci yàlla jëfe sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk dëgg dëgg ay taalibe ci yoon wi nga war a jaar waaye yëmu ca li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa mbokkum jullit loola bokk na ci wax joo xam ne ak jëf joo xam ne Cheikh Ahmadou Bara euh, jëf na ko ci ay ay melokaanam ak doxinam loolu. Serigne Cheikh. barakallah Serigne euh, euh, yaa ngi daw nee nañ dégg nañ lu yees ci sëñ Bara tey moom la nga waxoon sëñ Bas ni dinañ indi ci sëñ baara loo xame ni lu wér lay doon waaye lu yees lay doon yaakaar naa ni yeesalaat nga ci sëñ Bara xam-xam nag. lila, la day avancé di yokku ku dégg nga nag bi nga waxee xam ni sëñ Baara nag tey jii nag nga waxtaan wi yëfi sëñ Basi ñor na la yàlla yàlla guddal soo fan mu mel ni sëñ Alaaji ñu ngi ci wàccaay yi mbooloom sëñ Baara mi ñu ngi waaj ndax yéenay dalal gan ñi euh, yaakaar naa démb la woon réunion dernière réunion ñu jëm ci le 19 incha allah euh, mbooleem taalibe yi Cheikh Mouhamadou Lamine yi nekk ci dëkk bi yépp yaay seen jëwriñ yene ngi wacc tollu fan ci bis bi ak na ngeen wara accueillir nit ñi ak bis ba nu ngeen di wote soññe mise en place yak la ci wara dem lepp euh, dañuy santat bu baax sëriñ bi euh, di ñaan rek ma <laughs> nuyu wat bu baaxa baax. sama mbokk yi sama jëwrin yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi euh, sëñ Gànna sëñ Samba jaw sëñ Cheikh Balla dëgg yàlla ñu ngi leen di siyaaraat bu baax a baax a baax euh, di nuyu itam mboolem koo xam ni téléspectateur nga boo xam ni yaa ngi dégg Touba TV yaa ngi koy suivre di jël siyaar bi yëpp di ko teg ci loxo sëñ Cheikh Balla mu jàll leen ñu ko ci jëwrin El Hadj yu fay euh, li nga wax dëgg la taalibe yi ñi ngi waajal bis bi ndax dañu ko namoon lool ndax diir bi mu toog amul naam yàggul ndax benn année rek la at mi ñu ko mujjee def ci la yàlla dogal jàngoro jooju tàbbi waaye dama ni jàngoro ji amul chance ndax bu amoon chance beneen bis lay tàbbi pour gën a mën a faagaagal ni mu li ko indi woon mu man koo def waaye bis bi mu daje dafa dajeek mbër moo xam ni moo aar réew mi téye ko ba nga xam ni la ko yëkkati woon pour mu def si ko fi mënu koo def waaw ndax euh, ki mu dajeel bisam yàlla dafa dogal ci loolu la mas di dox mooy di wër nit ñi di wër doomu aadama yi di wër dëkk yi pour fegal leen loolu kon bu fi lu mel noonu dee dugg yàlla dañ ci defal tawféex bu baax a baax waaw waaye nag di ci turu taalibe yépp nag di sant bu baax a baax comité de pilotage bi tàmbale ko ci sëñ Jili Abdou Khadar waaye di sant bu baax a baax a baax sëriñ basiiru Mbàkke Xaadim Awa mi coordonnateur bi loolu ci turu taalibe yépp laa koy waxe ndax taxawaay bi nga xam ni moom lañu am ñu ànd ci ñun ñii ak bàyyi sàmba jaw mi nga xam ni booba ba léegi moom it euh, daanaka bu fi nekkee rek jarul woon ñun ñuy jël kàddu waaw waaye cant gi itam mënuñu ko na bañ a jàllale ba àdduna bépp dégg ko ndax ni ko sëñ Gana waxe euh, sëñ Baara nit ñi dañu ci xamoon aw tàngoor xamoon ci moom euh, beneen côté boo xam ni waaw dañoo foogoon ci moom aw tàngoor foogoon ci moom jafe-jafe goo xam ni nit ku jafe koo xam ni fekk na tawféex ak xéewal kese kese kese la boo xoolee lii fi na wax léegi nii muy lu bees tàq waaw <laughs> lu bees tàq loo xam ne mën naa ne lu ñu dajjee ci paquet la waaw nga xam ni sëñ Baara jamono yamu newoon dafa mel ni ci jamono jii ji jii ñu nekk nii ñun lay waxal fii mu nekk nii waaw ñuy xamal ñëpp nag nii euh, xam naa ne temps bi xaw naa waaw bis bi le 19 la waaw euh, di santaat bu baax sëriñ Touba di ziar Serigne Mountakha xalif général des Mourides di ko ñaanal gudd fan ak wér waaye di ko jaare itam ci sëñ Ahmadul Maxtaar mii xalifab daaru xuddoos nga xam ne moo boole guy mbind ak daaru xuddoos yilif di ko jaarale ci sëñ Moussa Bal Karim mii xalifab guy mbind di leen ñaanal yàlla guddal seen fan te wéral leen di xamal ni nit ñi daal le 19 incha allahu rabbi ku yéex a ñëw loo fa fekk nga jël te xam ni yaa ko jox sa bopp mise en place bi 9 la te ren amul carte ndax bëgguñoo teg place di xaar ku yegg seegul waaw ndax gan ñëpp gani sëñ baara lañu. moo tax ñu préféré ren ni boo tegee carte sax day xëy na ka amul carte mën naa wax ni man di bëggoon naa dem waaye comme yoruma carte bu ma demee nu may def ki yor carte itam mën naa toog sàggan ba mel ni man toog di xaar mise en place bi jeex walla waaye dañuy xamal nit ñi ni mise en place bi 9h lay jeex. bu ko defee ñëpp teel a sañse teel a mel nañu war a mel comme ni ma koy waxee rek nañu mel ni ku jëm tuubaa ku jëm Touba dafa melokaan woy mel. dëgg la boo ñëwee ba yegg si buñ la xoolee nga mel ni ku jëm tuubaa boo ñëwee loolu mooy sa invitation. barakallah waaw ñi ngi ci woo ñëpp daal di taalibe yi nag pare nañu. Mm-hmm. waaw ña ne ca waañ wa ña ngay waajal xéewal yi dana fa ne. incha allahu rabbi foofa ci biir foire ba. ndékki yi dana fa ne danañu añ bu ñu paree itam ba journée bi cérémonie ba jeex ca ngoon nga am na conférence bu mag boo xam ni euh, ndax tubarkalla macha allah ñii ñu ci rendre hommage euh, lim bi dañoo boole kilifa yi nga xam ni euh, dañu fee jóge jiitu ji ci ñaari at yi yëpp xam nga loolu lim bi te bëgguñoo bàyyi kenn ndax gis nga ni ko sëñ Gana waxee ci sëñ Baara maanaam. dafa yaataloon lépp. ñëpp la seqaloon jàmm. boole woon ñëpp seq ak ñëpp jàmm moo tax kilifa yëpp bàyyiwuñu kenn. ñëpp lañ ci boole. Euh, war leen cee rendre hommage mu am ci nag ay kilifa yoo xam ni euh, sëñ Samba dina ci ñëw. ñoo xam ne ñoom euh, dañoo amoon taxawaay boo xam ne ci yoon wi. amoon ko ci réew mi taxawaay boo xam ni mëneesu la def lu mel nii lu toll ni journée culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak fii Cheikh Mouhamadou Lamine. tolloon ak fi yalla yi te duñ len ci rendre hommage lolo waral nak liste ba xawa melni mel ni lu nuñ ko waxe waye senegal gep lañ ci ñaanal di ci ñaanal rew mi ci bopam yalla def fi ak dal def fi jamm ak sutura te am nañ ci yaakar bu baax a baax di santat bu baax di ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam barakallahu señu laaji xamna ni sëriñ Alaaji Samba jaw Masalikul jinan la jox kàddu gi waaye bala ñu ko jox kàddu gi maa ngi wax ni euh, mbooleem télévision yëpp bu dul RTS rek da koy def direct à partir de 9h30 10h la direct yi tàmbali télé bu dul RTS te nekk ci Sénégal dañ ko def direct site internet yëpp dañ koy def direct loolu nag liggéeyub sëñ Bass la lu ëpp 50 million yëkkati na ko ngir télévision yi waaye digganteem ak alaaji mbàkk yu fay nag moo waral lii lépp ndax alaaji mbàkk yu dafa bëgg sëñ Bass sëñ Bass bëgg ko ñu ànd ànd boo xam ni sëñ rek ko lal moo gis ni sëñ Bas mii day liggéeyal maamam Cheikh Mamadou Lamine Bara te ku ne xamoon na Cheikh Sidi Muxtaar yàlla yàlla guddal fanam te wéral yàlla yàlla yokk yër yërmande ci moom Serigne Bassirou ngi noonu borom bis bi ñu ngi koy ñaanal bu baax moom sax xam naa ni réalisation bi daam moo def lu baax lii rek waaye moom wane sëñ Baara rek doyoon na ko sëkk waaye lii nag day bokk ci wa ama bi ni'mat rabbika fa haddis lii ak cant la rek la ndax yëguñu ko daam mi ne ci régie bi moo jékki-jékki rek génn photo nii kon loolu wax dëgg yàlla day loo xam ni euh, dañ koy dañ koy dugal ci loolu rek waaw sëñ Baara ko wane maamam rek ndax li mu li mu jëfal maamam mu jaral ko lu ne maamam ma ko wane rek ñu ngi ñaan suñ borom guddal fanam te wéral ko te sàmm ko te aar ko ndax sëñ Baara jaral na ko lu ne génn bëgg rek la muy sëñ Baara sëriñ Jili Abdou Aziz Kasalika noonu kon xam naa ni sëñ Alaaji waaw sëñ Alaaji waaw ndeysaan looy woo sëñ Baara sax moom ci jëmmi bopp mu wuyu la waaw moom waaw ndax ah, bëgg gu mu bëgg sëñ ah, Baara gëm gu mu ko gëm ak ah, fonk gu mu ko fonk sëñ Sidi Abdou Aziz daf ko seeral ay yoon yoon ma fekk te fekke bu ko waaw kon alaaj Sàmba euh, yaakaar naa ni comité d'organisation bi bokk nga ci ñi nga xam ni yàgg nga ci lool sag woyof sag mbaax sag bëgg lu baax balaa kàddu gee jëm ci alaaj Cheikh Balla Samb moom ndax alaaji mbàkk yu nag mooy teeru gan ña ca bis ba ndax moom la sëriñ bi samp Dakaaru waaye kenn du fàtte Cheikh Sidi Muxtaar ci Masaalikul Jinaan kenn mënut a wax plateau sëñ Baara te doo fàtte doomi Cheikh Mamadou Lamine Bara jooju ak soxna Mati Lay yàlla yàlla yokk yërmande ci moom ñu ngi koy ñaanal bu baax euh, ci suñu borom yokk dolli dolli dolli leeram te taas ñu ci barkeem ci barkeem Sëñ tubaa alaaj Sàmba yaakaar naa organisation bi lépp yemb na fi mu ne li ñuy xaar mooy euh, samedi rek le 19 ñu def fàttaliku Serigne baara euh, ñaanal réew mi waaye fàttaliku Cheikh Mamadou Lamine doomi Sëñ tubaa ji njëkk a gënee àddina Tuubaa téléspectateurs yi euh, ñu muñal lu ndax euh, message yi wàcc ci suñuy téléphone bari na bëgg sëñ gànna euh, sarawaat ci sëñ sëñ sëñ baara waaye lii émission la nan nan muñandi rek ba ca bis ba waaw bu ca bis baa waaw bu ca bis baa yaakaar naa ne des na ko saraa bu baax a baax a baax baax waaw sëñ Gana day dañuy mosal rek ci sëñ Baara nii waaye fi mu ne lim dëxëñ euh, mënu mënu ko fi sotti ndax émission la. walaay ndeysaan dëgg la waaw ñu xam ne rek euh, xam nañ seen yéene xam nañ seen yëpp. ñu ngi ànd ak ñoom ci ci ci loolu ñu wax waaye nan dem ba ca bis ba rek ak kuuru émission yi nga xam ne dañ ko def ci diggante bi. waaye bis ba moom incha allah ku bëgg a xamati rek lii nga xam ne sëñ Gana yëkkati na ko jëm ci sëñ Baara na nga ñëw ci le samedi 19. Euh, di sant bu baax a baax a baax ci samay kàddu yu njëkk di santaat bu baax ku tedd ki sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér sëñ Muntaxa ñëpp ko war a ñaanal ndax ñëpp li ñuy wax identifié wu nañ ci moom taalibu bu nekk rek boo sañoon sëñ Muntaxa ngay mel ci baaxam ci ci ci ci ni toppe woon ay kilifaam ci nim yëkkatee sëñ bi nim kennale woon sëñ bi yal na fi yàgg te euh, ñu ngi jëm ci vingtième euh, quinzième édition journée nee naa leen internationale sëñ Baara ndax euh, du Ndakaaru rek du Sénégal rek waaye diaspora beeg yëpp ñooy vivre journée bi à travers les médias à travers ñoo xam ne tamit ay kóllërale sëñ sëñ sëñ bas lañu di ñëw ci bis bi bu daggal leen ñu dagg ay paas di def lépp ñëw ci bis bi kon ñu ngi ñëpp di leen ziar waaye di nuyu xalifa yi nga xam ne sëñ Hamdu Mokhtar comme ni nga ko waxee rek di daayira di euh, di di di xalifa Daaru Xuddus sëñ Moustapha ndeysaan di ko ñaanal moom tamit bu baax a baax a baax a baax waa kër sëñ Baara yi nga xam ne mooy seen xalifa eh, yan bi yal na ko sëñ Touba téyel ak maam ji sëñ Baara di siyaar sëñ saaliwu eh, di wax ne xam nga bu ñuy wax ci sëñ Baara man mi dëkk Louga man dama cee xam lu bari ndax man damaa judd rek dégg sëñ Baara waaw ak fa mu nekk ca Louga waaw nga xam ne tey jii ca kàdd ga bu ni wax kàddu ñu bari xam nan ko ci Louga te ci loolu bala maa def daal damay mujjee Fall nga xam ne moo fa nekkal sëñ Baara di le représentant ca Louga maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax sëñ mujjee ñëpp ko xam waaw ci ci ci ci engagement ci ci ci ci ci loo xam ne macha allah lu am solo la boo tuddee sëñ Baara moom jaral na ko lu ne te bis bii ma ngi koy ma ngi koy waaj bu baax a baax a baax a baax. boo jóge Louga ñëw ci Kébémer ndax Kébémer daa bokk ci biir Louga waaw nga xam ne euh, sëñ Xaadim aw ba fa la nekkoon ba sëñ Saliou fa la nekk moom mii jàmbaar jii tey jii yore journée bi daanaka béy ci sa wewu tànk béy ci sa wewu tànk euh, œuvre de bienfaisance yi muy def yépp di ko def te des naa ci danaa ci ñëwaat Kébémer la ko commencé ci ci jumaa ci dimbali ci edd ci lépp foofu foofu la ko commencé nga xam ne macha allah képp ko xam ne Kébémer nga dëkk rek xam nga jëfi sëñ Bas te nit ki lu am importance da cee war a am ci boom dafa war a fonk askanam fonk ay xaritam waaye na kennal sëriñam moom yooyu yépp daje na ci bom ndax Kébémer ga nga xam ne fole nekk lu nekk la fay def jaarale ko nag ci xalifaam daa dégg ndigal lool juboo tamit ak i mbokkam boo fa jógee ñëw tuubaa Touba xam nga ne fan yee rek bi ñëwee ci xalif bi sëñ xalif bi eh, daanaka yéen a àndoon waaw voilà ak lam ko la ko sëñ bi wax ak waxtu wu nekk te foo nekk rek man nga fa nekkal xamal ni foo nekk rek mën nga fa nekkal tawféex ji nga daan am ci bis bi da nga am ju ko raw man maa wax mun Muntaxa bis bi sëñ Bas ba tey waxul benn baat <laughs> maa ko yëgal sëñ Muntaxa maa ko ko wax sëñ Muntaxa tàllal mu ñaanal ko mu wax ko lam koy wax maa ko jotliwaat waaw damaa bëgg génne lépp jaare nag ci bàjjanu boppam xaritam. soxna Baali Muntaxa soxna Baali Muntaxa danaa ci ñëw. ndax maanaam bu dee da jëm ci ab organisation da ngay indi contexte bi wax ci nit ki muy sëñ Bass ba pare ndax nit ñi mobiliser leen yombul yo mobiliser leen yombul waaye moom. fi mu nekk tey jii waxuma la ndakaaru gii mu koy defee waaye bu ko defoon Kolda baa mu defe ko woon Fuuta ñëpp koy fa fekk ñiy ñëw ndakaaru ñëpp ñooy ñëwaat Fuuta ñooy ñëwaat fépp fu mu ko mën a def rek bu ko defoon génnee ko sax à l'international ñëpp ko fay fekk sëñ mu taxaa dégg nga ñaan googu mu ko ñaanal ak wax ju ju tedd yooyu mu ko wax te looloo nekk ci moom te loolu mu ko wax tamit moom la famille murabut euh, maraboutique yëpp yëpp yëpp nga xam ne ay sëriñ leen lool yi lañ koy seedeel ba ci jumaa ji nga xam ne koor gu ne dana fa ñëw investir fa jumaay Touba investir fa lu am solo ànd ak daayir bi ba ci 11 novembre bii rek bërki démb rek moog sëñ sëñ sëñ Modou Kara gis ngeen ko fa jëf jëm fa jëf ba ci Thiès démb sëñ Ahmed Saloum jëf jëm fa jëf ak leneen ak leneen bërki dem ba Côte taxaw ba mu fa taxawee yëkkati umma islamique gépp waaye yëkkati nañ yëkkati nañ képp ko xam ne taalibu sëñ Tuubaa nga dégg ngeen euh, sëñ bi lam ko fa wax ca ca ca ca Côte d'Ivoire cant yam ko fa ant ànd nañ soxna si soxna Bali nekk ci wetam nekkub taalibeem loolu loolu nit ki bu koy def nit ñee koy fay li muy def ci nit ñi nit ñee lay fay moo tax képp koo xam ne yëkkati na la da lay yëkkati ci farat kon bis bi jàmbaar a koy def d'accord ceeg ñëpp bu ma ñëwee ci Masaalikal Jinaan lépp loo xam ne alaaji mbakk yu woote na ko fa man may coordinateur Masaalikal Jinaan moom mii moo ci njëkk nekk moom nag xaritoog moom di confident alaaji mbàkk wi tamit fonk ko lool ndax rek ni sëñ bi mel mën a joxe rek ki mën a mën a mën a joxe boppam waaw alaaji mbay ko mbàkk yu mu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ci lépp loo xam ne wàcc na ci sëñ bi jóge na ci sëñ bi muy ndigal bu ñëwee ci alaaji mbàkk yu bu ko yëgee dana ci def li man ak lim mënul ba ci fii barki démb rek dama toog ak moom ak Cheikh Cheikh Balla mi nga xam ne mooy directeur bi directeur Touba am na wax joo xam ne moom dana ko yeggale ndax bu jëlee kaddu dana ko wax ci seen diggante ñu koy jokkalante bu yu baax te noonu yi mu koy defee ak alaaji mbàkku yi la koy defee keneen di koy defee keneen di ko defee keneen kon bis bi ñu ngi sant ñëpp bis bi le samedi muy muy 19 waaye dafa am lu koy jiitu ci plan organisationnel CICES lañ koy defee CICES ñëpp ko xam waaye boo duggee. daanaka da ngay jëm rek ca penku ba rek direct danga nga gis bâche ba ndax bâche bi plus de mille places la ak beneen kii boo xam ne 600 mètres carrés la boo xam ne lépp VIP la carte yi ci laa bëgg ñëw carte yi li tax defu ko fépp VIP la kon jëru ko.

sëñ baara weesu na affaire VIP moo tax mu ne ban tante VIP rek laay def rek ñëpp taalibe yëpp ci yem ki ñëw daal day ñëw teel a ñëw bu ñëwee incha allah comité d'organisation maa nga fa euh, commission accueil nga fa ñu am solo nga fa dana la diriger ku nekk ba ba teg la teg la place bi nga war a nekk moo tax carte yi mu ne mu ne ren daal wax dëgg carte yi daal moom am na ci kersa na def lépp VIP rek. Mm-hmm. waye likoy jitu jiitu. Mhm. mooy at mu nekk. Mhm. avant ñu ñew ci bis bi. Mhm. dafa am bis bo l'arbre, alarba lañ ko jàpp. le 16. alarba le comité d'organisation bép ñoo fi daje ñooy 6 à partir de 16h30. 4h30 ñepp fay dajé ñu def reconnaissance. reconnaissance bi li tax ñu def muy képp kuy takk der maanaam gendarmerie moo yore zone bi si ses gendarmerie ko moom danañ ñëw comme ni daan ñëwee at mu nekk muy àllarba ji 16h30 sapeur pompier danañ ñëw service des jeunes danañ ñëw ñëpp nga xam ne ak médical bi dañuy ñëw ànd ak comité d'organisation bi. Hmm. ngeen def reconnaissance. ñu def reconnaissance.

loo ciy barkeeloo nga dem nga barkeeloo xaarul kenn xaaru kenn ah, waaye le directeur général de CICES macha allah installation yépp ba wàccee kaamil yëg yépp ci salon yan saal yan ko daan defee muy muy 4 avril foofu lañ koy fa lañ wàccee kaamil yi te tamit yëmu ci sur l'ensemble du territoire fu ci nekk ñu ngi fay wàccee kaamil euh, Kébémer ak Touba. waaw ah, daara yu bari tàmbali nañ waaw kaamil na. Euh, programme bi xam nga ne cérémonie officielle bi euh, ci suba 9h mise en place. nous ñaan nag talibi Nous ndax wax dëgg comme sëñ bi nim nous ko waxee lépp da avons jël delloo talibi ndax talibi yi ñooy sëñ baara sëñ ay talibi yi. nan teel a ñëw buñ des mise en place 9h programme bi manam day programme bu am importance ndax parrains yi danoo bari yow lim nga ko da nga ko limaat léegi. incha installation parrain yi ku ci ñew le matinée bi lan lay installer teel la installer motax tax parrain yi timit ñi ngi leen di ñaan. ñepp ñu teel ñew ñu indiqué leen fi ngeen fi ñuy toog incha te yaakar naa ne le 16 bobu muy mercredi sen sen seni manam euh, ñi nga xamne ñoy ñooy boppi parrain yi. Euh, ñi nga xam ne taalibe yi. dinañ am ay représentants représentants yi. danañ bokk ci euh, bu may dégg danañ ca bokk te sëñ ba sax xam naa dana leen woo. ku ca nekk ñu wax la fi nga xam ne mooy sa emplacement. nga xam ne bu ñëwee rek. du doon am benn problème matinée bi nag. loolu lañ koy consacré ak ouverture officielle. incha allah après midi bi nag. incha allah ñu ñu ci la ñuy saraa nag. li li lii li li li lii internet di doon doon ma def ci sama téléphone uh-huh. ak di ko wax ne euh, euh, sëñ bi na jëlaat waxaat ci sëñ Baara loolu moom après midi bi moom yaakaar naa ne ku bëgg dégg ci dara ci sëñ Baara ak ci pare yi après midi bi moom wax dëgg bu nu añee ba ñëw rek moom dana yaatu lool lool lool lool ba fi mu nekk euh, te sëñ Bass tamit jël nay disposition am fi mu nekk tant que programme bi jeexul rek kenn du fa jóge la donc mën na noo dem ba parce que taalibe yi moo tax mu def ko. xam tamit fi muy fi mu toll ci sëñ Baara. dëgg la. ak li ko sëñ Baara jaral. ala samba xam naa ni li ñu am ci waxtu. déedéet waaye des na daanaka dab nañu. des na léegi ñu def deux de temps xam nga waxtu wi. waaw des na lu am importance bii may daanele. waaw bisimilah waaw mooy sëñ Jili. waaw sëñ Jili nga xam ne mooy mooy mooy mooy le président du comité d'organisation. dëgg la. première édition ñu waxtaane ko. ci kër moom mii Alaaji Fall mo nek le président du comité d'organisation sëñ djili ba nëgë ni di ku bax ku mën a ku ku mën a dajale ay talibé première édition ba 15e édition bi mësoo koo gis mu jàppante kenn ba mu wax kenn loo xam ne naqari na nit ku baax la waaw nit ku lawet la nit ku yiw la dëgg la sëñ Bass a ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax booy seet tout la réussite de l'organisation ci ci boppam ci boppam la ajo dëgg la ñoom maam Cheikh jàppale ko waa kër gi jàppale ko ñëpp jàppale ko. barakallah waaye ña ngi koy sant bu baax. ñun ñëpp ci disposition la nekk. bi may daaneel nag muy El Hadj Mbacke yu. ndeysaan ak digganteem. dëgg la waxoon naa ko tantôt danaa ko waxaat ñoom ñaar ñoo bokk seen lépp alaaji mbàkk yu wax na ko bërki démb ci téléphone mu koy dégg moom tamit ci avant première bi gis na lim lim ko wax ba ci lii nga xam ne moom la siqti plateau bi lim ci wax ci lim lim ko wax jëmale ko ci ki nga xam ne mooy mooy Cheikh Balla Samb bi koy wax ci sama kanam la dëgg la kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu teel a ñëw euh, barakallah euh, yéene jim am moom ñu partagé ko incha allah ku ci bëgg dégg nag ci sëñ Baara nag li li nga xam ne moom la ku baax kii ku tedd kii nga xam ne wóor na ne xam naa ne wóor na ne li ngay wax ne émission bi xaju ci. alaaji Gana walaay moom kay daanaka dab moom jeex na. ku solo la parce que bi ni muy bi muy dugg si bi muy dugg si tamit ku koy sant la parce que bi muy dugg si Touba fii fii jóge Touba sëñ baa ngi ma koy wax. ndeysaan dëgg la tamit sëñ sant bu baax. Touba la jóge fa lay delluwaat nii. fa lay dellu léegi. barakallah waaye li ngay liggéey ci ci ci ci ci murit xam nañ ko <laughs> te ñun sëñ Touba rek lañ bëgg bëgguñu leen. alaaji Samba moom daa baax ba ñëpp lay bëgg a jox cëram ñun sëñ Tuubaa rek lañ bëgg bëgguñu <laughs> moom dafa baax lool jërëjëf Jaw xam naa ne li ñu am ci waxtu joxal Cheikh Balla mu sànni ci ay kàddu ndax euh, mooy kàdduk Alaaji Mbàkke yu di kàdduk euh, télévision bi ndax dab nañu du ko defee fukki minutes yi dese nag tëje ko ci sëñ Gànna sañ ci sëñ Baara yi mu mu mu mu mu mën a résumé nag tëjal ñu ci Cheikh Mamadou Lamine ba bis ba incha allah ndax li amoon ci waxtu bi doy na waaw xam naa ne administration bi yëpp jërëjëf ñu ngi leen sant di leen gërëm Alaaji Cheikh Balla bismillah jërëjëf sëriñ euh, Cheikh maa ngi siyaare suñu mbokk yu baax yi nekk ci plateau bi euh, tàmbalee ci sëriñ gànn mi nga xam ne soldaaru yoon wi la soldaar boo xam ne du noppalu te it dafa am pertinance boo xam ne ni képp ku ko déglu

suñ suñu bokk mu tedd mi nga xam ne nii dawloo na yaramu képp ku nekk ci plateau bi tey jii ndax suñ baara suñ sàmba Jaw nag bu fekkente ni woon ni moom rek moo fi ñëw doy na sëkk ndax moom li mu représenté dafa bari représenté na yoon wi ci masaalikul naan nga xam ni moom la ñu bokk ñun ñëpp ummaa bi bokk ko ci sëñ Tuubaa jox ko cadeau

fab suñu ziyaare boobu yépp jébbal ko sëriñ Muntaxa ci ndigalul suñu bopp ak ki nga xam ne nii moo ñu fi yebal su ngeen fi gisee tey jii euh, ma topp ci sëñ euh, Samba nga xam ne doyoon na sëkk mbàkk yu mi nga xam ne nii mooy suñu jëwriñ di taalibu sëriñ Touba boo xam ne fépp fu ñu yëkkatee Serigne tuubaa mu dugal ci loxoom ak kàttanam ak man-manam ak wërsëgam akum xalaatam ak xam-xamam moo doylewul rek ci loolu bi mu nu joxee télévision bi daf ne na nga delluwaat toogal ma ngir wone ni lislaam dañ ko war a feetal dañ ko war a célébrer célébration bi ñu koy defal nag dañuy tànn ñi nga xam ne nii ñu màgg lan ñoo xam ni référence lañu ba pare repère lan ci bu àddina jaxasoo te kenn rawu ci Sëriñ Baara ci ak dundam ak production bi mu defal yoon wi ak jamono ak àddina te ab sëtam fier ci loolu bu ko won àddina muy référence bu doy waar boo xam ne nii képp koo xam ne nii topp nga ko rek mën nga cee jëriñu te wax dëgg yàlla di damoo sa maam te ñépp xam ni li mu fi def bàyyi ko fi ku ko gis mën naa jëriñ humanité bi yépp Sëñ Gana ni mu ko waxe tey jii loolu lu ñu ko war di def guddi ak bëccëg la won ko àddina bépp ndax àddina bi soxla nañ ko fii mu nekk nii sëñ Mbàkke nag di nit ku reconnaissant boo xam ne euh, waxuma la li ko sëriñ Bas ji ci teraanga waaye it yoon wi ci boppam mu taxaw ak di wane ay repère am ak i référence am loolu lay dox guddi ak bëccëg

ku mat a bàyyi xel la ku mat a fonk la ku mat a jàppale la fu ne fu mu taxaw édition bu mujj bee nga xam ne dañu amoon conflit ak beneen téléphonie dafa jóg ñépp di déglu mu ni te boobu metti na lool mu ni sëñ Mbàkke mii day citoyen la boo xam ne nii dimbali ko jàppale ko naam ñeneen ñi nga xam ne ay gan ñu ngi ñëw ci réew mi di investir kenn du leen wax dara waaye moom ku mat a jàppale la wax ko ñëpp di ko dégg ak courage ren jii rek bi ñuy def iftaar bi nga xam ne nii sëñ Mbàkke yu dafa bëggoon a dajale umma bi yëpp offrir leen ndogu nga xam ne ambassadeur yeeg boroom xam-xam yeeg ba ñeneen ñi nekk ci yeneen tarax yëpp dana na bëggoon a taral wan leen taaru lislaam ci koor gi sëñ Bas dafa jël kàddu wax fa loo xam ne nii ñëpp lañ ko dégg ndax xam nañ ni. moom citoyen bu modèle la xam na ni itam taalibe bu modèle la moom Serigne Mbacké Faye mu won ko àddina bépp loolu nag ku la koy defal ci nit amul lu dul boppam Serigne Touba ñi ko topp ñëpp pour sauver seen bopp tax ndax dañoo xam ne lim ñu manal ak lim ñu defal ci suñu jëmm ak lim ñu dëkk ci ñu ci ñu gëm ko mënuñu koo am fenn képp koo xam ne nii am nga koo xam ne mi ngi lay wane loolu di la ci jàppale di won àddina bépp farfarlo mais rek na yalla tax ngeen deglu ko ci analyser ko defal lo loo xewle bu fekkene nga di nga ci taxaw lolou motax munuma mu demal taxaw munuma fa munuma ñew ndax dama am luma ma lol waye Samba rek doyul ni ngeen boole télévision beeg lepp jébbal ko ko lu mu ci neex na ko def te kat ku teral teural la loolu daal moo mu ñew fi jërë ngeen jëf waaw. jógee ci Serigne aw Ba mi ngi koy bind léegi di ko sant alaaji Mbàkke yu nee na xaritam la mi ngi gën a renouveler digganteem rek ak moom di wax ni taalibe bi sëñ Tuubaa te moom sëñ Tuubaa kën a bëgg mu mel ni daanaka def nañ ñaari waxtu waaye mënuñoo ñàkk fukki minutes yoo xam ni alaaji gànna da ciy dugg ci ndax duggagul ci sañ ci sëñ baara yi ak lu muy résumé ci sëñ baara bégale ko nit ñi la ca des nag le 19 incha allah la koy àggale ci CICES kon Serigne Gànna sëñ Baara sanc naa ci àll bi fu nekk ngir liggéeyal fa yàlla rek. waaw sëñ Baara moom day li may wax rek dundam rek dafa doy kiimaan ndax lim bind ak lim jëf dëkk yooyu na nga xam ne tey jii koo xam ne ci ñeent fukki ak juróom nga toll nga dund ci àdduna ak yi la gàllankoor yëpp sanc na dëkk bu ñuy Daaru naay Mbaraakan darul rahman xaban mbakke njuk mbakke bari taysiru asir guy mbind daarul muayn keur seigne baara ci louga ak mbakke kadior mbakke kadior lima la waxoon léegi na la jëmmi seigne seigne bi boy tuddu dunduk fallo ak seigne modou mustapha ci ci ci ci yenn yi len seigne bi don digal dafa nak 13 14 mooy tolloog bi seigne bi joxe ndigalul ñu sanc ndindeeg sanc hosnal ma ab ak dekk yi seigne bi joxe won digal ci la joxe won seigne baara yi ndigalul mu sanc mbakke kadior booba sëñ baara ma nga sanuusi sëñ baara daa neex a waxal ndax sëñ baara moom moo ko wax wax dat bi asina lii mina sanuusi binti xool ila madinati laha mbakka yu xaal maji ona la maji ona laha amala sa sin ata ata ba min baax di xaama jël sa sin kon asina ni asina nii mina sanuusi binti xaal jox na ma ndigalul tuxoo sanuusi ilaa madinatin laha jëm ca dëkkam ba nga xam ne mbàkk yu xaal waaw mu ne moo tax mu jógee foofa rek ñëw euh, euh, mbàkke kajoor mm-hmm. kon dëkk yooyu yëpp Cheikh Lamine Bara moo tax sëñ Mourou Mamoun Niang ba koy tàggale ne sakk fi mbàkke kajoor tuubaa wa tay sirun asir lahu xusuurun wa duyóor uxra bi la taazumi kon sanc na dëkk yu bari loolu ngir nga résumé sa dundug sëñ Bara rek mooy lii ko bindkat bi wax asayxu ahmadal makin amin wal aminu bun mooy sëñ baara ma nga xam ne mooy doomi al amin kañ wóolu kay liggéeyal yonente bi alayhi salaam suñu royteef bu mag woowee loolu la sëñ Moodu Maamun ña ngi wax wax ne sakkana fi Mbakke Kajoor Tuubaa wa taysir ransir lahu xusuurun wa duyur uxlaa bi daa taasumi sanc na Mbakke Kajoor sanc taysir am na yeneen i dëkk ak yeneen i tata moom sëñ baara amoon na ko xat kaana jannatul murid wa junnatan anil marid nee na ajjanay murid yi moo doonoon sëñ baara waaye mooy pakkub aji téppal rajo wa kullu insaanin tarid an siraat al aqwami ak képp koo xam ne wàccoon na yoonu jubba kaana waliyan wa nasir liman yaluusu aw yasu wa yabtaxi bihi al xuyur amin difaa niqami moo doonoon kilifa ga doonoon aji kii dimbale ku ñëw di siyaare ak ku ñëwoon ñëwoon wéeru ci moom kuy sàkku aw yiw wala ngay jooj ay lor sëñ baalaa ko doon def kaana wiqaayatu kajoor min al fusuuqi wal fujuur wa maa yajuru lil xuruur waxaa idal arab la bi moo doon wet fekk waa kajoor ci mboolem li kàccoor yi ak tooñkat yi ak lépp ak lépp luy waral ak waru fu amilun amil bi almihi walam yamil li maa yudil aw yamil ani sawa ila qawil mooy borom xam-xam dañoo tagg borom xam-xam buy jëfe xam-xamam te mës ta jeng mës ta jedd mës ta wàcc ci yoonu dëgg rabba waraqa kulla man laaza bihi daaka saman in kaala xalbun ilma an minhu bi laa taxakkumi rabba waraqa mooy ñi mu yoroon yar na leen tàggat leen defar leen yóbbu leen seen borom wool wali yubnul wali xutbu zamanin al jali cheikhu rijaalil kumali min arabin wa ajami mooy wali yu doomi wali yu mooy sangub jamonoom mooy góor mooy sangu mooy sëriñu góor yàlla yu mat ya moom Cheikh Mamadou Lamine Bara seyxun waliyun wa taqiyun wa abxariyun wa naqiyun wa saalihun wa murtaqiyun ila al ula bil azami nee na sëñ Bara mooy sang ba mooy waliyoo mooy ko ragal yàlla ka mooy ko set ka mooy ko yéwén kay yéwénal mooy kay yéege di jëme ci ak kaw gën a mag haza majal maja haza majazatu rijal wa haza rutbatul kamal min sil jalali wal jamal muxrijina min al adami mooy ki nga xam ne làmboo na mboolem maqaamay góor yàlla jéggi na ko làmboo martaba yu mat yi moom Cheikh Mamadou Lamine ولسي خص بكم لأي ما أمر يكون إن خالكم كان بكم بربه المكرم مومن نجي لكل فيكون لب لوم وخص بروم دفكو ولسي يخبرنا بما يكون علينا وكان سرا كمنا فينا بلا تهومي مولم نعم، لا فين تنبوتي نون كانوا كاي فين ما شاء لين بار nga xam ne day nëbbu feeñ ci moom moo la koy xamal wala si yax si mu naa zamana wa kullu ma ya min mihani aw alami mooy ki ñuy fegal mboolem balaa yi ak dinu womma di ñu jëme ci jub ak lépp loo xam dana waral a alkande ki coon mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara kon loolu wane na rek ne lii rek xasida gi mënoon na résumé euh, dundug Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaw sëñ Mouhamadou Mamoune Niang kon muy dund gu gàtt gu fees goo xam ne njaboot sëñ Tuubaa gépp noonu lañ ko doyloo woon relation yi rafet laa moon ak ñoom tey boo demee Daarul Moxti fekk fa Cheikh Awa Balla mooy way juru sëñ Mourou Moxtaar bi ñuy rendre hommage noo ngi ñaanal sëñ Xalil mi nga xam ne mooy ab xalifaam yàlla yàggal ko te wéral ko ak jawrinam Sëriñ Sidi Mbakke waaye boo demee Cheikh Sidi Muxtaar mi rek doy na ci jàmbaar jooju ma wax ne noppeeg dal na mikk rek tey jii Cheikh Awa Balla lañ ko tuddee tey jii ay rafetal la ak jikko yu rafet ak relation yu mat yoo xam ne amoon na ko ci kon nag lii ñuy def tey discours bii mu jàngal jàllale woon nit ñi war koo dund ñu baax ñii ñu am bu ñu leen jëlut jàngat ci dañuy jëggaani rek sëñ Bas nag noo ngi koy sant bu baax noo koy gërëm bu baax nit ñi kenn du leen moomee xët-xët ak naqar deret ak ñàkk njariñ koo ko def du ñëw ndax sëñ bi ci boppam moo dagg jéeg yi ba noppi moo ne saa naf añ bi laa darin kaay leen ma jariñ leen te amul lor ku la bëgg a ko da ngay lànk waaw xat ba safat la sëñ bas nag sëñ bas nag jikkoom la àndeek ñëpp ju rafet ba tax bu nee la jógal faaw nga jóg ndax benn waxuma moom mu di la jariñ waaye mën na laa jariñ ba noppi di la boole ma la jariñ man bu ma nuyoo lu may sama xarit mu ne ma yow lu tax ma jàpp la mooy dama am ay qualité yoo bëgg te nitu qualité ma ne ko loolu ab soññee la laxasaay la ndax sa kilifa bu nee la waaw góor da ngay war a góorgóor mu nekk nit ku laabir koo xam ne mbooloog tab ja du ko tax fakk ko wax naa ko ko ay yoon te fii fii corona bi jaaree nga xam ne dëkk réew mi metti na dëkk bi dëgër na bokk na ci ñi dàqoo na soutien nit ñi jàppale leen taxawu leen ci dimbali loolu ak njàmbaar la lii tey jii li mu ko jaral wóotewul ngir moom lu ñëw ci poosam waaye dafa génn ci poosam def ndax ku ne xam ne journée ñiy xam nañ li mel communication ku ci mën a def ay nangam ci ay millions ay bâche nga mën cee def ay nangam ci millions loolu bu doon looy carte la mënoo caa gagné waaye la ci gën a neex mooy ànd kook say bokk say bokk mooy ñi nga bokkal islam ñi nga bokk réew mi ndax yaatub loxoo ma tax tey nga mën a jël ñi nga ko rendre hommage mu doon ay mbooloo yu dul jeex kon jikko tey mënul gan te la ay dëkkam ja jëggaaniwul ay jàmboor ba mu fàtte bokkam wala mu fàtte boppam wala mu fàtte taalibe yi wala mu fàtte mba euh, dëkk ba mu nekk muy euh, Kébémer dama ko wax na ko 2012 laa la màggal gi ñew ci digg penc mi jox la kaddu sag mokkal alquran ak sa xam-xam woné nako ko dama ko wowat nako señ bass yow noble nga ndax li nga wax ci surne señ Modou karabi ku iñan du ko wax gis nga nit nag boo amutul cieur da jox kenu cieur fi ne fo fek ku iñan amul dara amul ben cieur nit bu amé cieur rek do iñan ndax ay nawle tok nga mën yëkëti yenn séré jëmee ko ci señ Modou Kara man ko wax te yàlla kese rek tax nga wax ko loolu yombul ku defaru moo man loolu waaye nag noo ngi ko ci noo ko ci sant bu baax a baax ci jikko jooju ndax wane na fa xam-xam déedéet nit ko iñaan du wax lu baax boo waxee wante la cay teg ak li nga def nii amu sens ah, loolu amu sens waaye nag ku ne na nga mel na nga mel fay na ko kilifa it sëñ Bass mujj na ci te ñeentay yàq kilifa sëñ Malick Bassine si ab tubaab ah, laa jox na ko luy yàq kilifa mu ne ko ñeent mm-hmm. loo xam wax ko mm-hmm. lu ñu la wax nga wax ko loo mer xul ko loo am jagoo ko loolu day yàq kilifa yak kilifa moy lula way wax bu genné kenen ku ñew nga nako li ma lay wax nak mag yawa di wo ko fi waxon yoonu kenn nekkul entre nous koko génn gisub xaritam nako ko sëñ mako ko wax ba mu jàll nañ ko waxtaanee nonu nen entre nous koko génn nak señ bee ma doylo day muju nek lan entre nous tous lol kon lol lay jangale kon noo koy sante bu baakha baax di ko ci taxaway bi di ñaan lim ci yene yalla nako ko katanal mu yeggale ko mom dal marqué na ay apprentram ci yoon wi góoree diwul it maa ngi jéggu ci baat bi góoree diwul mooy ndax li mu bokk sukk ci raxas na ko ba mu jekk rafetal na ko ba mu jekk dara tuuruwul dara yàquwul jërëjëf Cheikh Abdou Bachir nga maa ngi jégalu nga may ma sant ci Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ci jataay bii mu doon amal barki dem wax jëm ca wax dafa leer si Ahmadou Kara dane lu dul mbégum ku tedd ki ak ki ko fi nekk Cheikh taxa bu dee moom laa ciy sàkku naa torox te xam ma du koy torox lay taxa torox mucc na ci ah? kon day wone rek fi mu nekk bis bii mu woote Touba barki dem mosul am mbooloo mu daje fees dell ay ndaw ay góor ay jigéen nga jël alal ju dul jeex def ko ca ne da nga koy sargal Cheikh Mamadou Mountakha ngir ñu dellu ci xam yërmandeem ak fi mu toll loolu yu baax yii wane na aw yoon ñoom de amuñu lu ñu am rek beru yii lañ ci war a tiiree ci leçon jàngu sëñ Modou Kara doon na suñ Modou Kara lu yàgg lay am di am tal dafay nekk di doon sëñ Modou Kara manoon naa toog Daarul Muxti def la muy def mënoon naa toog Ndakaaru def la muy def waaye le premier bala onze ba sëñ Modou Kara nekk daaru fi ne génnul Touba ngir lan sargal ak delloo njukkal Cheikh mu taxa loolu li muy jëriñ mooy ak taalibe nañ ca dellu ak taalibe nañ ca dellu mooy li am njëriñ liy jariñ nit àdduna di ko jëriñ àlaxira mooy ak taalibe kenn rëyul ba weesoo ñu di la yirif yoonu murit ñaar laam ab sëriñ akub taalibe sëñ bee fi nekk ku dul sëñ bi ab taalibe nga taalibe na xam la ko war topp sëriñ bi jafe ndigal bàyyi tere yu rafet yii nag feeñ mi ngi am ñun danañ mucc fañ bëgg a yegg danañ fa non ngi sant Cheikh Modou Kara ko ñaanal di jaajëfal bu baax a baax sëñ Mbacke yu fay may ñëw rek maa ngi déggante ak moom dai wah fay ne man awma awma mooy nekkuma daal ku wax sëñ bi rek mën nga waxal xam nga booba doy na nan man moom jurumaa wax man man lu ma wah wax baax na waaye man ku wax sëñ bi rek baax na fi ne sëñ Mbacke yu mooy koo ne bu la dégloo nga wax dara dalay woo naa la maa ngi lay de fi nga bu fi sa tànk moo ne noonu mu la ciy encouragé wax joo xam ne bu ko déggee nga koy wax sax dans le déll yooyu moom yow yooyu du say du say koy sant di ko jaajëfal bu baax a baax sant sëñ yi ñun bokkal jataay bi euh, Moustapha Diaw Emo jarbaat euh, surtout sëñ euh, surtout Diaw Emo surtout sëñ Modou Baara la it mi ngi ñuy bàyyi xel ci jataay bi njabootu sëñ bi yëpp ñoo ngi leen di sant lu des ci wax ji nan ko jéggal lu ci jubit nu sant ko yàlla borom bi subhanahu wa taala xam ne nun daal bi ñuy jógee Touba dañoo dañoo ànd courage ci ñëw wuy si Sëriñ Basiiru ndax yitteem ak jëfam gis nga bi ñu nee Daarul Muxti ginnaaw suba la Daarul moo sama kër googu ma sañ keroog délégation la ànd ak mbooloo une heure de kilifa gu toll ni moom ñëw fekk ma sama kër kenn ku ne nag nit amul amul lu may boppam as gor it benn yoon lañ koy tëral gis nga aw nag aw nag boo koy rendi day wéqu di yuuxu te benn cër la rendi ci moom waxoon naa ko alaji mbakk yu fay dama koy waxaat benn cër muy baat bi la ñuy dàkk di ko rendi ndax cër yëpp la ñuy fees ba noppi di toj te nag yu dutu yuuxu nag yu dutu wexu bokoy togg du wax asgor benn yoon lañ koy jam benn yoon lañ lay defal teranga nga daanu waaye koo xam ne bët bu set da ngay bëgg ñu koy yeesal dos gor gor benn yoon lay tëdd man benn yoon lañ may jam ku ma jam benn yoon yaam moom asalaamaaleykum wa rahmatullah barakallah alaaji gànn mesere mu mel ni mbokk yi bis baa ngi noonu sëriñ basiru li nga seere ci moom xam nañ ko mooy xol bu set wicc la am sëñ abdou samad soxay bu mur saadix la yéen ànd barki démb sëñ Gana ngay jooy jooy métti. man 2018 la ma yóbbu Màkka man mii moom yóbbu yóbbu Màkka 2019. waaw Cheikh Abdou Samad ku ko gën a tabe ci yoonu murid gisuma Cheikh Abdou Samad amul wallaahi. waaw la waaw ñu ngi ñu ngi sant sañ Bas ci xolam bu sell. yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illaa man ataa Allaha bi qalbin salim sëñ Bas ñëpp la yéene jàmm du yàq du iñaane nit lu nit yokk xeet na ko nit ku baax la loo xam ni mën nañ koo seere ndax ku ko jege-jege biir la xam naa ko bu baax kon nag sëñ Gana li nga seere ci moom ku ko gën a jege gën koo bëgg te képp ku muy jëflanteel lu la yàlla jox ci àddina ci teraanga moom day jël teraangaam xam nañ ni teraanga ji ko yàlla jox moo faw xa muy sëñ Tuubaa waxtu nekk day jël day bëgg a jël teraangaam ju faw xa teraanga ji nga koy def di la ko defal noonu la ko yàlla bindee ndax li ko sëñ defal moo ko dàqal lépp kon ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a baax li sëñ Tuubaa wax moo yàq ki euh, li sëriñ Tuubaa waxoon ni baaxul ci kilifa mooy yàq kilifa mooy jubadi ak ñàkk njariñ moom dalu ko am na njariñ lool te li ki gën a dof ci nit ñi mooy ki ñàkk njariñ bëgg ñu teg ko fenn kooku dof la kon nag njariñ dafa baax ci doomu aadama sëñ Bas li nga wax sëñ Bas dina la booleek nit dina fexe ba nga am dara te du ci doon dara wallahi laadim màggal gii weesu rek boole na ay nit ak nit ñu jox leen ay mil ay ay millions ak lu ci topp ma fekki ca ca te te jotaay boobu ca laa bokkoon te loola ak mbaax la Serigne Cheikh te nit duy def lu baax doo toogee wax ko doo wéetee ñaanal ko yàlla kon nag jëf Mbàkke ñu ngi ñaan saw fan gudd lool ñu ngi ziyaare bu baax mbooleem ak Fatou Diaw imam Moustapha Diaw di sëtu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara di sëtu Serigne Modou Baara Serigne Modou Hafiz ñu ngi koy ziyaare bu baax a ma gënee àddina sànnoo si 1910 kon sëñ Mun Njaay Baara da ngay tëj jotaay bi rek ñu ngi ko tuddee nag ren bis ba maam Cheikh Anta ak Serigne Afia serigne bass liko waron def nako ci mbokk ño and daru salam ño and ci cheikh muntaha, al ño and ci keur serigne afia mbolem fuy njabot gi nek dem na serigne abo dem na fa jotay baangi nonu ñok serigne gis nga ko fi la koy serigne muntaqa waxe wax ju reey ji fo nek rek man nga fa nekkal mu ngi nonu doxal ma ngi ma ngi lay eh, eh, gis bu baax ci jëf yi ngay jëf yépp na nga xam ni foo man nga fa nekkal ngi di wax bis bi muntaha. sëriñ Bas a ngi nii toog nga xam ni benn baat sëñ Bas waxu ko maa wax bis bi sëñ Muntaxa wax taxawaayam wax léppam sëriñ bi mu tàllal bi ñaan ko sëriñ bi ñaanal ko sëriñ bi wax ma ni ma nee ko fu mu nekk man la fa nekkal loolu doy na sëkk kon nag Mbàkke jërëjëf yàlla yàlla guddal sa fan te wéral la bis baa ngi noonu le 19 lay am incha allah mise en place ba 9h la mu tuddee ko maam Cheikh Anta dem nañ Serigne Abo dem ci njabootu maam Cheikh gépp dem ci Serigne Saliou Afe dem ci Serigne Moustapha Lakaram Serigne Cheikh Anta fépp la ñu wër ngir yaatal lu lu lu yaatu de su ko xatal sëriñ Bas ñi ci rendre hommage sëriñ Omar Dia bàyyi Abdoulaye Dia ak Moustapha Ndiaye di kenn ci ñoom ak Cheikh Souley Diagne di xaritam di léppam mu ngi koy woo ci bis bi ak ñépp rek kulim da nga jum wala doomatal sëriñ Moustapha Massamba sëriñ Abdourahmane Fall Tilala sëriñ Moudou Makhtar sëriñ Moustapha Absa sëriñ Abdourahmane ñoom ñëpp sëñ Ablaye Thiawlaay Pape Malick si ñoom ñëpp dina leen rendre loolu ak yaatal la te yaatal dafa am solo kon nag Serigne bas ñu ngi ñaan aw fanam gudd te wéral ko nuyuwaat Serigne Djili président comité d'organisation nuyu maam ay Cheikh AIS jamiatul islamiyya li xidmati tasawuf mbokk yi kon suba am nañ plateau bu jëm ci sëñ Ablaye Thiaw Laye ak mbooleem rend ñi ñi rendre hommage yépp Chérif Ibou Seyni Laye moo fi ñëw loolu lépp nag bëgg gu sa alaaji mbàkk yu bëgg sëñ bas moo tax mu defal ko loolu lépp ngir xam ni sëñ Bass mii ci dëgg la nekk te maamam rek lay wut ngërëm moom muy sëñ Baara sëñ Mame Ndiaye Baara tëjal ci sëñ Baara ñu mën a ñaan waaw euh, ah, maa ngi lay ziare bu baax di ziare bu baax Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Khane Awa Ba ñu ngi koy ziare di ko sant ndax dëgg yàlla bis bi ñuy defal Cheikh leen Bara dëgg yàlla dañu ciy boole rawatina ren gii sama borom dogal le 2 décembre dañuy def sant Serigne Bara Mbacke waajal màggal Mbacke yor ca théâtre national danañu Sorano ren bi mu ko déggee dana ma saal bi ñaata la ma wax ko mu ne ma fay naa ko def naa ko di Serigne Bara. kon sëñ bes maa ngi koy sant bu baax di ziar baax suñu jëwriñ suñu El Hadji Fall sëriñ Gana Messere macha allah ci waxtaan wi nee naa ko tey moom lu bees tàq ngay indi macha allah waaw waaw. Sidi Mokhtar Samb euh, mi ngi lay nuyu Serigne Cheikh Balla. ñu ngi koy ziare di taalibe Cheikh sëñ Cheikh Mati lay bëgg lool Cheikh Sidi Mokhtar. Euh, yor agence de euh, immobilier. El Hadj Mohamed. El Samb. Mhm. El ngi lay nuyu. sa doom di ko ñu koy ziar baax di ziar baax Cheikh Moustapha Diaw imo bërki dem dëgg yàlla la ñu woo biroom yëkkati alal ju bari jox ñu ko ci bis bi mustafa Diaw Diaw imo di ziar bax baax mada Maada Diop ñu koy ziar bu di ziar Serigne Modou Bara Gueye ak Serigne Cheikh sam ak soppe Serigne mou Ndiaye Baye nek ci WhatsApp ñom ñep ma leen di ziar bax di ziar bax suñu sunu bi nga xamni ne ñoo bokk dekk Njaareem muy jumu ju bax di suñu baay doon and ak suñu wajuru góor Serigne Cheikh Balla sam suñu wajuru góor Serigne Cheikh Ndiaye nga xamni ne ñoo bokk nek France ñu koy ñaanal bax di ziar bax suñu sunu bi diko ko Serigne Samba Diaw diko ñaan ñaanal Serigne Touba defal ko tawfeex ak mbolem kep kuy baye xel émission bi rek ñu lay ñaan di ziar bax baax Serigne Mame Cheikh mbak AS diko ñaan ñaanal Serigne Touba defal ko tawfeex di ziar bax waa Njaareem ak kep kuy baye xel emission bi rek di ñaan serigne Bass yalla fi yàgg loolu téer serigne bara Baara ka Kajoor moy ciosani bax moy dalu murid moy keur bara talif nay Cheikh bara kitaali bunyaan mi noon na diiwaan ku jekk bunyaan yéem baara mbaake sëriñ baara mbaake génnul njàngaani te naan quraani jaaxal nga waane cheikh baara mbaake doo xam di fakku foo dem ñu jokku yaatal nga bokku cheikh baara mbaake Mamadou Lamine Mamadou Lamine bara bara kula way am dam bari sagaya murito yen waje yen waje Mamadou Lamine Mbacké wote bari sagaya Nazar